la la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di ci toftal kàddug ndokkeel ak kàddug tatagal jëmee ko ci mbooleem sang yi nga xamante nii teew nañ ci jotaay bi mu nekk ci seen bopp suñu yarekat suñu imaam suñu wayjur suñu sëriñ suñu gungekat ci yàlla bi nga xam ne lépp lu ñu fi gis ci ay taar lenn la rek ci taar yi nga xamante ni mu ngi koy digle tout le temps mu jëm ci mbokk taalibe yi rawati ñun ñi nga xamante ni nii ñoo ànd moom ci yoon boobu muy seexal imaam alxaaji Mouhamadul Moustapha Youssouf bi tey mu nekk ci peggam ay mbokkam ay wëllëreem ay am bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyaka nacbudu wa iyaka nastain ihdina sirata almustaqima sirata alladina anamta alayhim xayril maxduubi alayhim wala daalina amiin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfaatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqimi wa ala aalihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim wa radiya allahu taala an asxaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala xawla wala quwata illa billahi alali alazim yaa himmata cheyqi uxdiri lana fi asal maxdari waltaati fii bi nasratin taati lana bi fasar subhaanaka laa ilma lana illaa ma alamtana innaka anta al alimu alxakim mbokki jullit yi ñu ngi wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi tatagal ñëpp di ndokkeel ñépp ci weer wu màgg wii di weeru koor ñu ngi ñaan yàlla nañ ko yeggale ci jàmm te yàlla nañu yàlla gërëmal lépp te yàlla bu nekk suñ mujjantal ak koor yàlla na yàlla nangu ñaan yeeg sarax yeeg ndimbalante yi yépp yàlla nañu ko yàlla gërëmal yaa bi di leen ndokkeel beneen yoon ci jataay bu tedd bi bokk ci jataayu diine lislaam ndax bépp jataay boo xam ne yàlla moo ko tax a jóg ñu fay waxtaane yàlla jataayu lislaam la bépp jataay boo xam ne dañ fa daje ngir defar ak mbokk jataayu lislaam la bépp jataay boo xam ne pour dimbalante la moo tax ñu jataayu ko jataayu lislaam la ndax yooyu yëpp danga fekk borom bi subhaanahu wa taala digal ko jullit ñi nga xam ne ñoo diine woo diina ji di diina lislaam ñoo ngi sant mboole mbokk yi yépp ndax li tax ñu koy jiital moo di soxla dafay gaar léeg-léeg mu bett boroom te bëgg nañu kenn ku ci nekk yëg ne ëmbal nañ ko ngërmaane loo xam ne ngërmaane lu rëy la ak cant goo xam ne cant gu amut dayo la góor ak jigéen mag ñépp nag moo tax ñiy joxe cant gi kenn ku nekk yëgal boppam ne ëmbal nañ ko cant googu ci suñ xol te dayo bam tollu làmmiñ wi lott na ci tudd ko di ndokkeel ñépp di jaar fi mbokk yi jaar di gërëm ñi nga xam ne tey ñu ngi bokk ak ñoom jumaa ji ci njiital président alxaaji Semu juuf ak ñi nekk ci wetam ñépp euh, gis nañu suñu soppe Mahamadou Lamine njaay mu teew ci jataay bi macha allah wane na jataayam la camp bi itam këram la mbokk yi ay mbokkam la di ko bégee bu baax di ko ñaanal yàlla ak ñi mel ni ñoom ñépp di jël cant giñ sant nag kilifa camp bi ak mbooleem ñi koy jàppale ak ay kilifaam yépp ba ca kaw ba ca ministère l'intérieur cant gi yépp teg nañ ko ci loxool alaaji Semu Juuf mu tegal ñu ko ci loxo kilifa camp bi commandant Fall ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may ndam ci liggéey bi yëkkati ko ca kaw moom ak ay kemam yépp ba ca ministère de l'intérieur ñu ngi leen ëmbal ngërmaane loo xam ne di leen ñaanal yàlla te di ko ñaanal réew mi di ci jiital kilifa gi nga xam ne mooy boroom réew mi yàlla na ko yàlla dimbale ci lépp loo xam ne dafay jëme réew mi ci kanam moom ak mbooleem ñi koy jàppale ci réew mi kàddu ngërmaane yooyu lañ doon yëkkati di leen ko jox di gërëm daa daaira bi comme ni ko mbokk yi waxee dëgg-dëgg ambal nañ ko cant bu baax di ko bëggee it ci jamono bu nekk te di gis ay yëngatoom ci biir ak biti te li nekk ci biir nag gën a bari te incha allahu danañ ci gën a xam dara danañ ci teg suñ bët ñun ñëpp yal na yàlla matal mbooleem niser yi di gërëm yaayu daayira bi Adja Daba An moom tabarakallahu jàmbaari diina lislaam la joo xam ne gis ko rek taxut nga xam ko waaye force nga dund ak moom mën a xam ban taxawaay la am ñu ngi koy bëggee di sant ajaa màggat Diop mi nga xam ne mooy sabab suñu xamante te booba ba léegi amul dara ci ñaaw amul dara lu ci taxaw lépp mu ngi continuer jëm ci kanam ñiy jàppalante daa iman ci liggéeyu diine yi lislaam moom ak ñi mu àndat ñépp ñu ngi leen di ñaanal yàlla ah, soxna umu xayri aja umu xayri aja naar ñu teewal fii képp koo xam ne ñëwagut ak ñi nga xam ne am nañ ngànt am nañ gàllankoor ba teewuñu ak aja faat si ma nga ca makkatal mukaram yal na yàlla nangul ko omraam ak i ñaanam lépp mu dellu siwaat ci jàmm fekk fi jàmm ñu ngi leen di bëggee di leen ñaanal yàlla di ndokkeel waa daaira bi ci ñaari kàngam yi nga xam ne ñoom lañ tuddee daa daaira bi conférence bi jataayu tey bi nekk ay royut kaay yoo xam ne yaakaar naa ne li ma xam ci ñoom bari na waaye làmmiñ wi dana lottu pour jàngat li ma xam ci ñoom ci ay ngëneel ci nekk ay référence yoo xam ne ku xool ci ñoom dund ak ñoom da nga xam ne ñoom yoonu àndoo jox nañ ko dëgg-dëgg gëdd bi nga xam ne moom la yoonu àndoo ci yàlla laaj su dee ne tey sëriñ seeni ndóor wax ci moom ak wax ci cheikh rekk doy na tey conférence te kàddu goo yëkkati rekk goo xam ne goo bëgga a laaxe biir mbokk yi teew kàddu goo yëkkati mën nga koo daaneel si ci ñoom misaal boo joxe rekk ci nu nit war a mel ak nu nit war a jëfee kàddu gu jóg rekk mën nga sooy daaneel kàddu gi nga jël jëmmi wax ji jëmmal ko ci kenn ci ñoom ñaar koo ci njëkk làmb rekk dañ nga kooka te ànd ak ñoom ñaar noonu lañ nekkee woon ay soppe ndax sëñ seeni ndóoru dafa meloon ci man noo xam ne waxuma la ku ma jege rek dama jéllale ku ma jege waaye ñi ma sori sax xam nañ kooku mooy kan te di ko ñee ci melo wi nga xam ne moom la meloon kon ñu ngi ñaan ci yàlla yal na yàlla seddal seen tëruwaay yal na yàlla teral leen ca aljanna ya gën a kowe yal na leen yàlla boole ca ñey dëkk ak yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ca gën jaa kowe na ci darajay seeni sëriñ suñuy sëriñ mawlaana cheikhna ahmada tijaani radiallahu anhu yàll na leen yàlla yéegal ci barsaq cheikhna ahmada tijaani radiallahu anhu ak mawlaana cheikh ibrahim ñas mi nga xam ne tey moo ñu takke ñun ñëpp bañ nekk tey ndongo ci ay ci mawlaana cheikh ahmada tijaani radiallahu anhu ban nekk sañ wax ne ay jullit lañu jëmm jooju yal nañu ko yàlla fayal yokk ay leeram radiyallahu anhum di fas yéene jéem ci li mbokk yi sàkku muy loo xam ne yombut yombut ci man ci côté bu man di doon xëy na am na ci ñu yomb wante yombul ci man ndax dañoo wax ne dañu bëgg ku leen wax fayda bi ñuy wax faydatu tijaaniya ana ban rol la taxawee la mel ak lislaam ban rôle la taxawee ci diine lislaam ndax fayda moom mbir la mu ñuy wax rekk walla fayda diine lislaam la walla fayda benn mouvement rekk boo xam ne dañ koo dendale ak yëf yi walla déet loolu ak bu fekkee ne fayda moomu ñuy wax dëgg-dëgg teñ di ko wax ci waxin yu yaatu kan moo indi turu fayda ana bi fayda su fekkee na feeñ na ndax feeñ na walla déet walla ana ci kan la ko yàlla feeñal ak dëgg-dëgg fayda daal ci boppam moo di lan ñu jéem di tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim sant yàlla mi nga xam ne moom rekk mooy buur yàlla mi nga xam ne mooy borom yàlla mi nga xam ne moom rekk mooy yàlla te lu dul yàlla it amut di julli ci yenent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi yenent bi nga xam ne moo wax ne nangeen jotal ci sama wax ji ma dénkaane ak ci diina lislaam muy risaala gi ko yàlla yónni jotal leen ci mem buy tolloog benn aaya kon kenn ku teew soo demee na nga jotal ku teewut dina jottali samay wax ak samay jëf na tasaaroo kon ñu ngi julli ci yenant bu tedd boobu di ñaan ci yàlla yàll nañu yàlla gërëmal suñ jataay gërëmal ñu waxtu wi may ñu ñu mën a jottali liñ bëgg jottali te yàlla may ñu ak dégg bañ man koo dégg te lépp luñ ci dégg yàlla na nekk di njariñ suy njariñ yàlla na ñu yàlla dimbale bañ man koo jariñoo ñun ñépp mu ne alfaydatu wa faidatuha fi xayaati almuslimi addiiniyati wal ijtimaaiya maa ngi jégalu di sant di kontaan ci teewaayu waa ansaaru diin ñi nga xam ne ñoom ñoo ëmb mbooleem dawaayir yi ci njiital président Barham Seck mu ànd ak kilifaam di suñu kilifa ci ansaaru diin alaaji maalaw kamara ak seydi tayib ture ñu ñëw teewal fii ansaaru diin ñu ngi leen di ndokkeel di leen gërëm bu baax ndax tey buñ ne ansaaru diin ansaaru diin mooy mbooloo mi nga xam ne mawlaana cheikh ibrahim radiallahu anhu nose woon na ko def ko nag mu nekk mu tuddee diine ji garab waaye mu sàkkal garab gi nag ay banqaas maa ngi jële ci suñu benn papa alaaji Keeba am ñoom xam nañu ko mu ne bi bàyyi bindee ni doxalin wi nga xam ne moom la bëgg ñu doxalee ko ansaaru diin daf ko def mu nekk ay leetar mu jël benn bi jox ko alxaaji Abdul Asiis yal na yàlla yokk ay leeram jël benn bi jox ko gaynde Fatma sëriñ Cheikh Mbàkke téye benn bi ne na yooyu de leer na ko xamul nag am na yeneen yum tasaare ci yeneen kër yi waaye alaaji Keba Caam yal na yàlla yokk ay leeram nee na yii moom leer na ko ne nii la ko bàyyi doxalee pour mag ñi ñépp àndoo liggéey kenn ku nekk fa nga féetee nga bay jëm si ci digg bi ñu liggéeyal diina lislaam nee na foofa la nosee ansaaru diin nangu naa ko it ndax déglu naa lu dut benn at lu dut ñaari at ci kongare boo xam ne waa kër sëriñ Mbàkke soxnaloo nekkoon doom ci sëriñ Seex Mbàkke kongare bi ñuy def toujours ci institut islamique yàlla dana may may danaa koy déglu ci rajo bi damay tijj rek tombe ak moom mais doxali ne ansaaru diin dëgg ni ko bàyyi tëralee noonu lañuy jàngate jàngatee seen doxalin ma xam ne la ma alaaji Keba Caam waxoon lii mooy lu ko wéral ñoom ñu ngi koy doxal bu baax yal na yàlla dimbale nag ñépp ñoo xam ne ñu ngi doxal loolu tey nag fii ci Dakar kàngam yii ñooy ñi nga xam ne ñoo ko amee tey am nañu ko ame woon di dem di dem di dem di dem ba yàlla addi ko ci loxol alaaji Malaw Kamara mu dem ba yëg ne nit ñi doyaluñ ci moom waaye mu dem ba yëg ne moom mag la te ndaw ñi ñoo amee liggéey bi ñoo amee activité yi mu yëkkati loolu tey jiital ci doomam alaaji baram sekk mii tey tabaarakallaahu di doom ci ñun di soppe di jihaatkat bu mag di borom itte yàlla na yàlla dimbale ko ak mbooleem ñu koy dimbale kon loolu laa doon andi di jéggulu maanaa alfaydatu luxatan wa baatu fayda ci luxa da nga fekk muy tegtale mbir mu nekk su demee ba bëri bay tuuru loolu mooy fayda alfaydatu luxatan man faada min faada yafiidu faydan faydan wa faydaanan mu ne faydu comme ni ma leen ko waxee soo bëggee xam baat bi ci luxa moo di mbir mum man di do su demee di di bëri di bëri di bëri ba bëri gi ëpp àpp ba jéggi dayo ba bay tuuru tuuru googa muy tuuru loola la ñuy wax faydu suñ demee ba di ko askanee nag nit ne faydu ci nit mooy lan dañuy wax ne mooy koo xam ne aw yiwam dafa bëri di sotteeku di sotteeku ba amatul dayo walla xam-xamam dafa fees xam-xam ba di bëri di bëri di bëri ba xam-xam bi kenn mënta takk ne dayoom toll mu ne nag alfayda alfaydatu ismul faydati almaaruf fi luqatina wa natakallamu fiha daiman fahara ala lisani sayidina cheikh ahmad tijaani radiallahu anhu haytu qaal مبشرا أصحابه تأتي فائدة على أصحابي حتى يدخل الناس حتى يدخل الناس في طريقتنا أفواجا أفواجا تأتي هذه الفائدة والناس في قاية ما يكونون عليه من الضيق والسدة وتأتي الفائدة وتعني الفائدة كثرة الفتي ala atbaa'i haadihi tariqati attijaaniya fi maarifati llaahi taala ñu ne baatu faydu yàlla mi ngi dogal suñ waxee faydu ci tariqa bii di tariqa Seydina Cheikh radiyallahu anhu Seydina Cheikh ci moom lay déggee baat bi mu waxoon jëmmi bés ne faydu dana feeñ ci suñ tariqa bii boobu bi mu koy wax mu ngi bégal saxaaba yi ànd ak moom taaliba yi ànd ak moom ne ay kuréeli kuréel ay mbooloo mbooloo danañ ñëw ci faydu bi ay kuréeli kuréel danañ dugg ci diina lislaam te bu ñuy ñëw ci diina lislaam faydu bi mooy nekk bunt bi ñuy jaaree ba dugg ci diina lislaam mu ne faydu bi nag suñ ko waxee ci tariixa bi mooy tariixa bi dana bari mbooloo yoo xam ne dafay wuute bàyyeekoo ci ay xeet yu wuute di dugg ci tariixa bi su boobaa ci buntu fayda bi ci lañuy ñuy duggee ci tariqa bi mu ne jamono booba dana fekk nit ñi nekk ci ay xat-xat ak ay jafe jafe-jafe yoo xam ne kiris lay doon ci jamono jamono booba ci la faydu bi di ñëw ci tariqa bi mu ne faydu boobu nag bu ñëwee yàlla dana defal samam topp maanaam ñi nga xam ne ñooy taaliba Cheikh Ahmadu Tijaani radiallahu anhu dana def ci ñoom xam-xamab yàlla bu bari buy sotteeku ci ñoom ak xam yàlla gu gaaw goo xam ne la nit mag ñi daan def ci ay at ak ci ay sacrifice ba am ko samay taalibe danañ ko am te duñ yegg ci jafe-jafe yooyu nga xam ne mag ñi daanañ ko am te dana gën a bari ñi nga xam ne su boobaa ñooy xam yàlla isan alfatxu alasi yaftahu llahu bihi ala ahli haasihi tariqati ala yaddi waliyin min al awliyaai bila xawaajisin wala xudoodin bil aalaaf wa bil acdaadi alkabirati wa yuctihim allahu alqudrat ala xamli sirri fi lfatxi walfatxu xaqiqatan huwa an yasila alabdu ila mustawa yaclam anna haasihi dunya miftaaxuha wa idaaratuha bi yaddi waahidin huwa allahu jalla jalaaluhu wa an yudraka anna lasi yataamalu maahu huwa almawla tabaraka wa taala kon nag fatxu te mooy ubbeeku te ngën koo mën a xamee ci kiiraay loo xam ne dana dañ ci diggante jaam bi ak boromam kiiraay li yàlla doxale diggante jaam bi ak boromam kiiraay loolu pour mu dañ su fay du ñëwee kiiraay loolu yàlla daf koy muri ci digganteem ak jàmbi ba benn kiiraay dootu dox ci diggante jaam bi ak boromam loolu mooy càkkuteefu bépp jullit yaakaar naa fay du moomu nag yàlla def na ko ci loxool benn wàlliyu ci wàlliyoom yi ci loo xam ne amul benn werante ci loo xam ne amul benn limite faydu boobu bi ko yàlla defee ci loxool benn wàlliyu ci wàlliyoom yi dafay def ci jaami yàlla yi nga xam ne ñoo jàpp ci fayda boobu dafay def ci ñoom kàttan loo xam ne kàttan li buñ ko waxee duut kàttan kàttanu fisik waaye kàttan la loo xam ne li ñuy wax xawaasul xamsa doom aadama bu nekk dafa am xawaasul xamsa sirru mooy mbóot sirru ci nit ki doom aadama bi mën na koy dund waaye mënut cee joxe benn explication du ko su ko bëggoon sax du ko man loolu moo di sirru am na itam lu ñuy wax roxo roxo gi doom aadama bu nekk mun na yëg ne roxo moo tax muy dund waaye mënta wane roxo mënu koo laal mënu koo gis doomu aadama bu nekk am na xel xel mi danga nga ne lii boroom xel moo ko mën a xelu waaye ana xel ci yow mënoo ko wane mënoo ko laal doomu aadama bu nekk am na xol waaye ana xol bi ana bi mënoo ko wane doomu aadama bu nekk am na bakkan waaye ana bakkan su wax bakkan du suux wi tegu ci kaw kanam gi moo tax ñuy wax bakkan waaye nag dafa bari dansé moo tax ñu defal ko benn signal signal bi nag mooy ugg wii tegu ci kaw moo tax ndax fu dansé nekk war nañ faa def luy signalé wane na fii am na dansé loolu moo tax bakkan ñu utal ko ugg wii mu koy signalé waaye tekkiwul na kii mooy bakkan juróomi xawaas yi nag benn bu ci nekk dafay war a am force doole joo xam ne su doole jooju joxee ci moom ci lay door a mën a attan mbóotam yàlla mi nga xam ne moo nekk ci tudd yàlla tudd yàlla ñu ngi koy njëkkee ci làmmiñ waaye buñ demee ba tudd yàlla yàlla jëlal ko boppam ba palaase ko ci jëmm ji su boobaa làmmiñ dafay lottu ci tudd yàlla te du tere tudd yàlla nga continuer di tudd yàlla moo ne tudd leen ma ma tudd leen bu la yàlla di tudd nag na nga xam ne su boobaa yow da nga su boobaa pour tudd yàlla su boobaa lu yëngu te la yëngu woon mooy tudd ga nga doon tudd yàlla li ko yëngal moo ko ëpp doole mooy bu la yàlla di tudd su boobaa yow dootoo mën a yëkkati làmmiñ wi di tudd yàlla kon sabab booba mooy bi nga xam ne loolu moo tax fay du ñëw pour indi ci yeneen yoo xam ne geneen déggin goo xam ne déggin googu duhut na ñëpp la ko yàlla di jox saa yu jaam bi demee ba yegg foofu nag dafay gis ne moom kum man di jëflanteet gisul lu may yàlla rek lay jëflanteet ci jëflante bu man di doon jëflante benn dana nekk jëflante bu neex walla mu nekk jëflante bu métti waaye bum ci mën a doon rek dafay gis ne jëflante ko ak kenn mais yàlla rek lay jëflanteet jëflante boobu muy jëflante kon loolu lu tuuti la ci euh, joxe benn leeral ci faydu bu li muy def ci nit tekkiwul ne tur wi dëgg-dëgg <clears throat> mooy wax ji waaye la muy def loola mooy wax ja ñu dem nag ba jamono ñu gis ne faydu mbooleem kàngam yi ànd ak seydina cheikh radiallahu anhu gannaaw seydina cheikh comme wax na wax jooju mbooleem kilifay tarixa bi yépp ñu ngi koy fuglu di ko ñaan yàlla yàlla def leen ñuy borom faydu bi di ko xemeem di ci ñaan yàlla ànd ak di ci ñaanlu yàlla pour yàlla def leen ñu nekk di borom faydu bi parce que nit ku nekk li gën a nekk yitte ci xolom dana dem ba mujj xeeb ci boppam di ko di ci sàkku ku ko ci ñaanal yàlla kilifa yi demoon nañ ba yegg ci yegguwaay boobu di ñaan lu yàlla pour yàlla def leen ñu nekk di borom fayda bi mu ne waqad kaana tilka alfaydatu matmaa kibaari almasaayiqi fi tariqati wa adaa kasirun minhum fa baana lahum fi nihaayati annahum laysu ashaabaha fa qassaha allahu tabaraka wa taala bi machiatihi wa fadlihi li mawlana cheikh ibrahim radiallahu anhu wa qad zaharat bi kulli bi shaklin علني وصهد له بذلك عدد كبير من كبار العلماء والشيوخ في الطريقة بعضهم كانوا ممن يروا ممن يرون أنهم أصحاب أصحاب الفائدة ومن هؤلاء شيخ شيد عبد الله بن الحاج العلوي رضي الله عنه bokk na ci ñi nga xam ne doon nañ seenu faydu bi ci ñoom di ko xemeem di ko sabablu bañ demee ba mujjantal ñu yëg ne faydu biñ doon siñaale di wane ne ñooy boroom faydu bi dëgg-dëgg faydu bi duñ boroom bokk na ci ñooñu kilifa gu mag kilifa goo xam ne bokk na ci surafaa yi alawi yi na yi muy mauritanien yooyu nga xam ne ay sang lañu ñu xamoon ci cheikh abdullahi waldul haaj nekkoon kilifa goo xam ne mbooleem kàngam yi diina lislaam yi nekkoon fii ci Sénégal ku ko ci gisutit déggoon nga turam ci may gu ko yàlla may radiallahu anhu bokk na moom Cheikh Abdoulaye Waddul Xaaji moomu ci istuwaaram dafa dem ba yëg ne faydu bim doon oote du borom ndax yàlla wanaat na ko melokaan woo xam ne gis na ne borom faydu bi daal du fi mu nekk la ko ko yàlla wan waaye faydu bi yàlla wan na ko ko ci réewam senegaal mu am ci gis-gis boo xam ne doyloo na gis-gis boobu ci la bind nag benn leetar jiital leetar boobu topp nag leetar bi waaye leetar bi daf ko yónnee kilifa diine yi rekk mu topp nag leetar bi yoonu leetar boobu gannaaw bu mu jotee tontu ci leetar ba mu bindoon di gëstu nag leetar bi fan la jógee ndax leetar bi euh, biñ ko tontoo joxewuñ adresse ab fiñ ko tontoo am na question bum joxewoon rek boo xam ne ku ko jox tontu dana yëg na li muy kumpa su eboo mu jóg topp tànk yooyu noonu la yónnee woon leetar bi bi leetar bi delloo ca la daal di jóg nag jëm si Sénégal Cheikh Abdoulaye Wadoul Hadji moomu avant leetar bi daana mujj topp ay taalubeem di leen bindal lijaasa ci tariqa tijaan pour lim ci jublu woon mooy ki naroo nekk boroom fayda bi ni ko ko yàlla wanee dëgg-dëgg jege na ko lool bés su fekkee ne duhut na moom mooy borom faydu bi na bind lijaasa tasaare ko taalibe yi yi nga xam ne am na ci ñoom yaakaar am na ci ñoom xememteef mu jox leen lijaasa pour su ëllëgee bu faydu bu feeñee borom faydu boobu mën a tudd turam wane ne kii sama sang la parce que lu tax mu nekk di sama sang xamal na ma te it jox na ma ijaasa te dëgg-dëgg yoonu lijaasa ku ne xam na ne fiñ ko tegee ci yoon wi duñ ko yëkkati rek jox ko nit parce que yaa ma neex waaye yoonu lijaasa balañ koo jox nit ki dañ koy examé di ko testé ba yëg na yelloo na lijaasa bi nga yëkkati ijaasa bi jox ko ko loolu mooy yoonu lijaasa kon Abdoulaye Waldul Haaji yàlla dogal na bi mu yónnee leetar bi bañ tontu ko walbati na ñëw na senegaal di xeeñtu ba xam fañ ko tontoo woon fan la ca la daal di nag ah, def na fa ngan ay fan walbatiku na delluwaat na ñibbi bam ñibbee toogaat na beneen diir mu ñëwaat bam ñëwaatee defaat na fi ay fan bam ñibbee nag ca la génn àdduna radiyallahu anhu suñ bëggee dugg ci détail yooyu yépp dana nekk détail yoo xam ne yu xóot la yu sori la waaye ñoo ngi andi waxi Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu qaala mawlaana cheikh ibrahim radiallahu anhu qaala li alcheikhu alxumaamu walaarifu alimaamu cheikh abdullahi bun alxaaji alalawi taati lfaydatu ala yeddika xaqiqatan la majaasan wa tara min alxasadi aw xusadi maa lam yara ahadun qablak wa qaala li anta kabiru tariqati tijaaniyati fi samanik wa ashyaan kalla qalami an katbiha hayaan Mawlana Cheikh dafa wax ne wax na ma Cheikh Abdoulaye Waldul Haaji borom xam-xam bu bari boobu sang bu màgg boobu imaam boobu muy Cheikh Abdoulaye Waldul Haaj ne na wax na ko ne ko faydu bi Cheikh Tidiane doon wax ne dana ñëw képp koo xam ne oote na faydu bi xoote na ko majaasan mooy ni da nga doon géwant naan sama nangam sama nangam sama nangam bul yeewu de boo yeewoo sama nangam daal di jeex la nga doon woote woo yëpp da nga koy daal di ñàkk mu ne képp ku ko woote rek kudut yow daf koo xoote ci mel ni faydu bi daf koo ñëwal comme ku doon géwant waaye dëgg-dëgg yaay ki nga xam ne yaa koy xoote ci lu duhut ay géwant yow yaay boroom faydu boobu nga xam ne moom la Cheikh Tidiane radiyallahu anhu waxoon ne faydu bi dana ñëw ki ko njëkk a wax loolu mooy Cheikh Abdoulaye Waladul Haaj mu ne ko nag waaye jàppal yi ma lay wax danga gis ci ñu la añaani di la guerre di la guerre danga ci gis loo xam ne ñu jiitu woon sax gisuñu ko mu ne ko waaye nag li ma lay xamal faydu boobu daal yow yaay boroom yaay ki nga xam ne tëbb gi su boobaa ku bëgg a tëbb ci faydu bi yaa koy tëbb ci faydu boobu mu ne wax na ko nag yeneen yoo xam ne mënu koo bind ndax dafay am kersa ci bind yam ko wax yépp wa qaala cheikh abdullah ibn alhaaj haada kaana miman adaa alfaydatu li nafsihi fa qaala innahu kusifa lahu an alfaydati wa ra'aaha li nafsihi wa saara yatlubuha fi kulli man wajada min atalaamisati wala ma allima bi qurbi wafaatihi radiallahu anhu walam taqa alima annaha kon Cheikh Abdoulaye Waladul Haaji moomu bokkoon na ci ñu oote faydu bi waaye bi demee bañ uññil ko ne duhut borom faydu bi ci la mujj di tasaare ay ndijaasa di wër ci ay taalubeem ba pour yàlla wan ko kon kan mooy borom faydu bi ci biir njabootam parce gisoon na faydu bi ci boppam gis goo xam ne bu nekkut di moom rekk kon faydu bi dëgg-dëgg ci njabootam lay bokk wa minhum a cheikh saydi mohamad abdullah ibnu mustapha alawi radiallahu anhu faqad qaala ya samsa diini alxaasimi لك الهنا فإليك مرجع سائر الأديان أعني أبا الإسحاق قرة دهره ساق الرجال بكؤوس العرفان ما هو إلا هو صاحب وقته وعلى يديه فاydatu tijaani mu ne bokkoon na ci ñi oote fayda bi te mujj d'accord na borom faydu bi mooy cheikh ibrahim radiallahu anhu ku ñuy wax cheikh moustapha cheikh Mouhamad Abdullah ibnu Moustapha al Alawi radiallahu moo waxoon ne yow jantab diine diine jii nga xam ne mooy kojug xaasim yi ñeexal na la ak ndokkeel maa ngi lay ndokkeel lu tax ma lay ndokkeel mu ne delluwaayu mbooleem diine yi jëm si na ci yow kan laa jublu ci ndokkeel googu mooy aba isxaaqa di mawlaana cheikh ibrahim radiallahu anhu mi nga xam ne sangab jamonoom la di nandal kaasi xam yàlla yi di ko nandal góor yàlla yi kooku day duhut lu may ki nga xam ne mooy boroom jamono te ci loxoom ci la faydatu tijaan yi di feeñ radiyallahu muy dem di dem ba ne ajabun lahu bahrun tadammana abhuran abhuran من فيض رب العرس والأكوان فمن الحقيقة فيه بحر صاهر ومن الشريعة فيه بحر شاني مودم إلى أن قال ودهت براهن ما أقول وإنما صدق المقال وأم وإنما صدق المقال بواده البرهاني ما نكون kéemaan ñeexal na aba isxaaqa moomu ndax géej la goo xam ne dafa boole ay géej géej gu ëmb ay géej nag loolu dëgg-dëgg kéemaan la ci gët waaye kéemaan la itam ci xel mooy faydu boo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci boroom aras mi nga xam ne moo moo bind lépp lu yàlla ama lu mu amal mu ne nag Cheikh Ibrahim moomu di Aba Ishaqa géej la goo xam ne dafa fees bay sànni ay duusam waxoon nañ leen na faydu mooy loo xam ne dafa fees del ba feesaay ga jéggi dayoo bay tuuru waaye aba isxaaqa moomu géej ak la waaye itam géej ak sariatu la kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahim moo tax mu dellu waxal boppam ne moom Cheikh Ibrahim bi muy yar taalibe yi ne bi zahiri shar'i wa nuuril mubiini arabu salikina bila shakkin wala riya mu ne nag ci saahiru shariatu ak ci nuurul mubiin yaatu lool alquraanul karim bu la neexee nga ne mooy nuurul mubiin bu la neexee nga tënku ko ne xaqiqatu xaqiqatu muhammadiya mooy nuurul mubiin bu la neexee nga gën a jegeel primi wane ne nuurul mubiin mooy maarifatu billah kon mu ne ci ñaar yii ci la yar ay taalubeem yarut leen ci leneen kon suñ bëggee tënk dañuy wax ne wax ju nekk li koy dëggal mooy lay leer te li koy firndeel mooy yi ñu jot a andi mu bàyyeekoo ci ay boromi xam-xam wane na ne faydu bi du kenn moo ko ko askane waaye ay boromi xam yoo xam ne xam nañ lan mooy faydu xam nañ naka lay dikkee xam nañ na muy mel ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo ko nangul faydatu tijaan yi na feeñ na ci loxoom ma ngay dem ba ne ko fa kafaaka rabbuka yaa aba isxaaqana faral ida min sawil odwaani wa surora arbaabi daqaaini walgana wa surora sawi xasad sawi si xasadin wa si tuxyaani mag naan kon maa ngi lay ñaanal yàlla yow aba isxaqa yàll na la yàlla fegal xayu noon ak xayu borom noone borom ak mañeel yàll na yàlla fegal xayu koo xam ne dafa daf laa bañ ko añaan ak ayu koo xam ne ab wurujkat la yal na yàlla fegal la ayu koo xam ne dafa añaan ak ayu koo xam ne ku beew la ndax yooyu yépp xam nañ ne su borom faydu bi feeñee moo melokaan yu mel nii ñooy ànd daa iman borom ngëneel yàlla yàgg na ko boole ak ay natt yoo xam ne natt yooyu dafay ànd ak moom toujours wa minhum cheikh saydi mohamad abdourahman bun salik bun baba al alawi haythu qaal ayyuha cheikhu kaabatul adab aadabi arafatul awtaari wal arabi maadinul ilmi manbaa sirri marma ahyuni saa'irina wa tulaabi samratu sudadil muazzali wal majd wal majdi miftaaxu baabi kulli xijaabi lastum murtaaban fi xilaafatika cheikh wala musqiyan illa murtaabi anta lubbulu baabi miman yurabbi wa qalilun fi naasi lubbulu baabi radiallahu anhu bokk na ci ba tey ñi ko seedeel fayda bi cheikh saydi mohamad abdourahman bun saalik bun baaba ci alawi yi la yi alawi yi la ba tey ma ngay wax Mawlana Cheikh Ibrahim na ko yow sëriñ bi yow mi nga xam ne yaay kaabak teggiin yow yaay arafaatu mbooleem soxla yi yow mi nga xam ne yaay mbellam xam-xam yow mi nga mbell soo xamul mbell mooy suñuy gas or wala jamaa fi ñu koy génnee loolu la ñuy wax mbell kon yow yaay mbellam xam-xam maanaam génn xam-xam yi yow la yow yaay ki nga xam ne bët yi jóg di bëti taalibe yi nga xam ne dañoo jóg di siyaare ji yow yaay ki nga xam ne yow la bët yi di jaar ñëpp ñiy jóg di siyaare ji ak taalibe yi sàkku xam-xam yaay ki nga xam ne yow lañuy ñuy sànni bët yow lañuy ñuy may bët yow lañuy may xel mu ne ko nag man dey sikkuma ci nekk gi nga nekk di xalifa Cheikhu Tidiane sikkuma it na yow yaay ki nga xam ne yow la ñëpp di xerawlu yow lañuy ñuy déglu mu ne ko yow yaay ki nga xam ne yaay saalu kokku ba doom bi su ñam wa ba nga yegg ci kokk bi nga toj kokk bi am na lu ñuy wax saal ma nga ca biir mu ne ko yow yaay loola xam nga boo jëloon tey doom bi ba di ko ji lay tax mu sax ba andiwaat kim doxoon amut sikk ne saal boobu la même boo ko tojut génnee ko sax soo jëloon doom bi suul ko bu demee ba nga xam ne ma ngay sax di jébbi dafay nëb kokk ba daldi toj su ko defee saal ba daal di génnee bakkan mu indiwaat <clears throat> ka nga xam ne moom la doxoon mu ne te day ñu néew ci nit ñi ñoo yegg ca degré booba kama sayidaloohu radiallahu anhu bi salika hujjatul awal hajjat hajjuhul awal bi ma kaana fihi min ajaibi tasaddaq ala ahliyatihi attaama lil faydati wa tabah tabarhana ala xilaafatihi alkaamila saydina cheikh radiallahu anhu bal kaanat xayaatuhu kullaha shaahidatun ala dalika wala tasaalu sawadu qaaimatin ila yowmi alqiyaama li anna al afwaaja bi awnillahi fi sdiyaadi walfaydatu bi isnillahi fi tadafuqi wa irwaa'i radiyallahu anhu bokk na ci li ko seedeel ba tey fayda boobu ca ajam gu njëkk muy 1937 mooy ajam gu njëkk ci mag la ca feeñ ci ay kéemaan yoo xam ne lépp bokk na ci luy dëggal ak xilaafatoom ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci ne mooy borom faydu bi mbir ya ca amoon yépp benn buñ ci tudd rek tem bi dafay wëlbatiku jublu ca loola waaye mbir yu bari xew na ca yuy wane ne mooy borom faydu bi radiyallahu anhu alfaydatu wa faidatuha fi xayaati almuslimi diiniya li wuqufi ala faidati alfaydati fi xayaati almuslimi diiniya يجدر الوقوف أولا على صلة التصوف الذي تندرج الفائدة تحته بالإسلام في القرون الثلاثة الأولى الفاضلة التي هي خير القرون كان الناس متعلقين بالحق باحثين عليه إذا ناموا ناموا عليه wa ida stayqasuu istayqasuu alayhi wa ida taxarrakuu taxarrakuu fiihi xata anna man fataha allahu basiratuhu wa nasara ila bawatinihim wajada xuqulahum ila naadira mutaalliqatan billahi wa rasulihi baaxisatan ala alwusuli ila mardatihi fali falihada kasura fihim alxayru wa sataa fi sawatihim nooru alxaqi wa zahara fihim min alilmi walbuluqi darajat al ijtihaadi maa laa yukayafu wala yutaaqu fa kaana tarbiyatu fi haasihi alquroni xayru muxtaajin ilayha wa innama yalqa cheikh muridahu wa saahiba sirrihi wa waarisa nuurihi fa yukallimuhu fi usnihi fa yaqu alfatu lilmuridi bi mujaradi zalika li taharati sawaati wa shifaai alcuquli wa tasawuqiha ila nahji rachad nee na tasawuf bii nga xam na tey moo ëmb faydu bi te tasawuf buñ koy wax mooy jëmmu tariqa tijaaniya soo déggee toujours ñu ne tasawuf xam leen na tasawuf mooy baatinu tariqa bi ni tariqa bi amee zahir te zahir bi ci la ñëpp dajee noonu itam la tariqa bi amee baatin baatin bi nag ñëpp daje wuñ ci baatinu tariqa boobu nag moo ëmb faydu bi te tariqa bi nañ xam ne meññat la ci diina lislaam ñetti seekal gannaaw yenent bi sallallahu alayhi te nañ xam ne yenent bi dafa waxoon ne xayrul qurooni qarni suma la si na yellow nahum suma la si na yellow nahum ne waxoon na ne seekal bi gën ci seekal yi mooy bi ma nekk man topp ba ca topp topp ba ca topp topp ba ca topp kon seekal bu la gën a jege yenent bi sallallahu alayhi wa booba moo gën ba gën a sori yenent bi sallallahu alayhi wa lu tax seekalam bokk na ci lii tax mu gën moo di ne moo di ne booba nit ñi ñi ngi dund jullit ñi ñi ngi dund ci leer ak yenent bi sallallahu alayhi leer goo xam ne amul benn kiiraay suñuy nelaw ci lañuy ñuy nelaw buñ yeewoo ci la ñuy yeewu suñuy yëngatu ci la ñuy yëngatu da dem ba yàlla may la fatku ci dund googu ngay dund ak yenent bi sallallahu alayhi wa yow jullit bi seen lépp dafa aju woon ci yàlla ak yonentam képp ku ci gëm yàlla rek dem na ba nga xam ne dafay jeex takk ci yàlla ak yonentam ci misaal yooyu oustaz daa nga koy indi démb ci tafsir bi soxna soo xam ne ci jamono xilaafatu Seydina Omar ibn Khattab ci la ko yàlla dugal ci diina lislaam bi sahaaba yi jógee pour war a dem attaqué ko fekk ñu ngi ci tataloo xam ne ci camp boo xam ne du wut kum neex nga dugg biñ demee ba bëgg a soxna si bëgg a dajji waaye fekk nañ belende na ba mënuñoo dajji tatali soxna soosu yàlla na too ko muy xool ci fenêtre yi nga xam ne moo nekk ci tatali ba gis ci saxaaba yi benn waay boo xam ne xaleel la waaye taar bi yàlla def ci moom dafa attiré ndaw si nga xam ne mooy sénéralu walla mooy buuru armée boobu mu rotal cofeel ci xolam bi mu rotalee cofeel ci xolam ndaw si tàggoo ak sagoom di jooy jooy yu métti ba waa armée bi ñëw di ko laaj yow am nga garant am nga sécurité jooy yi lan la mu ne dafa gis ci ñii waa armée bii nekk ci biti nga xam ne ñooy jullit ñi daf cee gis waa joo xam ne cofeel gi nga xam ne am na ko rot na ci xolam dëgg-dëgg mën a tuta boppam lu may rek dañoo tijji li nga xam ne mooy tatali ñu tijji ko ñooñu daal di ñëw luy seen bëgg-bëgg ñu ne ko dugg ci diina lislaam rek mbaa ñu jël sa bakkan mu ne waaye yéen gone ngeen man danaa dugg ci diina lislaam waaye ci kaw ngeen yóbbu ma ci ki gën a mag ci yéen ki gën a nekk kilifa ñu yóbbu ko ci Abdullah ibn Omar mu ne ko bëgg naa ku la gën a rëy ku la gën a foor ni ma nekkee kilifa su ma demee bay dugg ci diina lislaam damay duggee ci loxol koo xam ne ñëpp danañ xam ne ci loxol kilifa laa duggee ñu ne ko kon nañ dem dina Seydina Omar a ngi foofu kooku mooy buuru jullit yi ñu andi ko ci Seydina Omar ibnu Xataab nettali ko solo bi mu ne ko waaw tey day man la yàlla dénk tey kàddu jullit ñi mu ne ko amul ku la gën a rëy ku la gën a foor mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi xabru baa nga mu ne ko nañ dem ba ca xabru yenant ba foofu laay duggee ci diine lislaam mu ànd ak moom ñu ñëw ci xabru yenant bi sallallahu alayhi foofa la ndaw si duggee ci diine lislaam bam paree lan la wax moo di ne foofu rek laa jëm si woon yow yàlla bu dee sama tuub gii nangu nga ko bëggatumaa walbatiku di dellu ci ak suufe di def luy tegtale bokkaale mbaa di def lenn luy tegtale ak mooy yàlla léegi damaa bëgg a ñëw ci yow rek ndaw si daal di daanu dee Seydina Omar taxawe ko ñu sang ko ju mu jullee ko yóbbu ko ci baqin jooy nag moom Seydina Omar jooy yu metti ci soxna soosu ci li ko yàlla teralee kooka dafa yegg ci yàlla xol ba moo seey ci bam tuubee dugg ci yàlla la xol ba daal di seey gisatu dara lu dul yàlla loolu moo tax ba muy dagg kiiraay ya nag mooy ba muy waxee ne bëgg naa ku la gën a mag ñu koy indi ca ka gën a mag bay indi ko ci yenant bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ku yegg ci dëgg dëgg yenant bi dara doxatul sa diggante ak yàlla moo tax ndaw sa dem ca péer yàlla ba kon jamono yenant bi sallallahu alayhi wa sallam xaal boobu moom la sahaaba yi doon dund moo tax duñ dégg baatab tarbiya ndax tarbiya dafa am lu koy waral waxtu woo xamee ne éducation manqué na su boobaa ca la ñuy wax jëm ci wàllu éducation waaye feeg éducation mi nga am su boobaa kay dund gi koy dund dafay tax kenn du wax ne amut lu am ba ñépp gis na am nag kenn du wax amut waaye nag lu amut tañ xam ne soxla nañ ak amam force ñépp waxee ak xamam nan lañuy def ba mu am nan la ñuy def ba mu tasaaroo kon ba mu amee la taxoon ma am mooy lan nekk ak yenent bi sallallahu alayhi bañ demee ba nekk ak boobu dagg te li may gën a leeral ci loolu moo di anas dafa wax radiallahu anhu bañ robee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam avant ñi raxas suñuy loxo di faxas suuf si takk ci suñuy loxo suñ xol yi fakk na wax boobu dafa lu xëyee moo di booba lañ daldi di yëg ne am na ku leen doon tëbb koo xam ne tey am na kiiraay loo xam ne tey am na ba am na luñ doon yëg loo xam ne yëgatuñu ko ah kay loolu moom la anas di junji ne ba ñuy fëggat suñuy loxo ci suuf suñ xol ya fakk na kon am na lu ñu doon yëg am na lu ñu doon dund ak yenent bi sallallahu alayhi loola ñu doon dund ak bi nag buñ demee ba yëg ne loola dafa war a continuer te it dafay continuer soxla nañ ko ana nan la ñuy def ba am ko dañoo war a def ay sabab ay itte yoo xam ne ci la ñuy amalee loolu loola nag la Cheikh Tidiane junjoon ay taalibeem ne faydu dana feeñ ci tariqa bi su boobaa mi ngi feeñ ci ndaw loo xam ne borom fanweeri at lay doon su boobaa jamono ba dafay nekk jamono boo xam ne nit ñi dañuy nekk ci ay xat-xat dañuy nekk ci ay jafe-jafe dañuy nekk ci bekkoor jamono boobu mooy feeñ ak faydu bi muy mille mille neuf cent vingt-neuf dugg trente biñ demee nag ba nga xam ne fasadati niyaat wa saarati l oqol mutaalliqatu bi dunia baaxisatun anil wusuli ila nayli sahawaati biñ demee ba nga xam ne pas-pas yi yàqu na xel yi walbatiku nañ aju ci àdduna di yootu yëgatuñ lu may bànneex bànneexam àddina mujj nañ daan utee yàlla nañ daan amee yàlla yooyu yépp bunt ya tëj na ci lañ mujj nag ñi nga xam ne mag ñi yàlla may basiira te mooy xol boo xam ne ubbeeku na ci lañ mujj nag di teg seeni taalube di leen awale ci yoon woo xam ne mooy yoonu àndoo ci yàlla lan mooy sabab ba àndoo ci yàlla daal sabab bi du lu may ki ànd ak kim àndat ci yàlla kooku na fekk mu gën koo xam yàlla gën koo jege yàlla gën koo ragal yàlla mu ànd ak moom pour mu wàll ko jikko yooyu nga xam ne moo nekk ci moom ñu wane ne lii rek lañ àndee woon ak yenent bi sallallahu alayhi wa ci lañ royee lépp bay jaamoo yàlla ni mu doon jaamoo yàlla di jéem a dund ragal yàlla gi nga xam ne moo nekkoon ci yenant bi sallallahu alayhi wa sallam ba yenant wàll leen kiiraay li nga xam ne mooy dox ci diggante jaam bi ak borom bi kiiraayam lu mureeku loola yenant bi mujj wàll leen kiiraay lu mureeku loolu ba ñoom it seen ba benn kiiraay doxatut seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala sëriñ soosu nag taxaw seen gannaaw di dëkkaliwaat loolu nga xam ne moo mel ni lu doon nelaw te mooy lumière boobu doon dugg ci xoli jullit ñi bañ mën a am dëgg-dëgg ragal yàlla ba mën a jaamu yàlla ni waree ñu mujj nag àndoo ak ci lislaam xam-xamu tasawuf mi ngi bàyyeekoo ci alquran ak sunna yenant bi ak ci ilham yankiwal gu ko yàlla sédd cër boo xam ne yàlla def ko sédd saalihiina yi muy cërab jagle ak fatxu goo xam ne ubbee goo xam ne yàlla ubbil na ko aarifiina yi muy ñi xam yàlla ulaayka an allahu aleyhim min annabiin wa siddiqin wa sohada wa saalihin wa xasuna ulaayka rafiqan moo tax surooqi radiallahu anhu ne nattuwaayu tasawuf ci diine mooy ni roxo mel ci jëmm soo ne woon jëmm analan mooy tax mu dund ñu ne la roxo gi moo tax muy dund bu roxo génnee ci moom jëmm ja suul rek moo cay des tasawuf it mooy roxo diine loo nekk-nekk jullit te eggaguloo ci maqaama boobu di tasawuf na nga xam ne ba tey dese nga lu bari waaye képp kuy jullit nag du dee lu dul yàlla may na ko ko dafa fekk may gi gaaw wala mu yéex soo déggee jullit di ñaan yàlla nañu yàlla may mujj gu rafet moom lay dagaan foofa mujj gu rafet mooy jullit boo xam ne bi muy dee kiiraay li doxoon digganteem ak yàlla dañ na bam am ak xam yàlla roxoom door a dem moo tax jullit du dee mukk bu yàlla may texe du dee mukk lu dul xam na yàlla door a dee kon diina lislaam dafa am maqaama lislaam am maqaama imaan bu ci nekk am na ay mansila ay wàccuwaay waaye maqaama bu mujj boobu nga xam ne mooy lixsaan foofu maqaama boobu foofu la tasawuf génnee jibril dafa laaj yenent bi sallallahu alayhi lan mooy lixsaan yenent bi na ko moo di nga jaamu yàlla di jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi gis yàlla mbaa nga koy jaamu ba mel ni moom mi ngi lay gis te yàlla dafa wax ne binduma jinne yi ak nit ñi lu dul ñu jaamu ma na baas ne li yàlla jublu ci jaamu gi mooy pour ñu xam ko parce que koo xamut mënoo koo jaamu soo xamut yàlla mënoo koo jaamu olof ne ko yaa ngi jaamoo yàlla éey jaamu ga des na lu bari yàlla waxaat ne digaluma leen man jaamu yàlla du mën a sell feek jaam bi xamut kan mooy yàlla parce que sell ak jaamu gi mooy nga génnee ci jaamu gi leneen lu dul yàlla dee leen julli di joxe asak ñooy ponk yi nga xam ne andiwaale nañ xoor ak aj màkka lépp nag wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam huwa waadiuhu faqad allamahu llahu lahu bilwaxyi wal ilham ki nga xam ne moo taral tasawuf mooy yenant bi sallallahu alayhi wa sallam jibril ñëwal na ko moom yenant bi sallallahu alayhi wa sallam awalan bi shariati فلما تقررت نصل ثانيا بالحقيقة فقص بها بعدا دون بعد وأول من تكلم فيه وأظهره سيدنا علي كرم الله وجهه yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril daf ko andil shariatu islaamiya bi shariat bi ko yenent bi jotalee bam sax ci xoli nit ñi cër yi di ko jëfee jibril andilaat ko xaqiiqa xaqiqa boobu nag mooy li nga xam ne jagleel na ko ñenn walis <clears throat> ñenn am ñu ne déedéet kon dafay mel ni yenant bi dafa nëbbu te yenant bi nëbbul dara fekk déedéet waaye buñ fàtte ne ba tey moo wax ne nangeen ngeen wax ak nit ñi ni seen dégg tollu dee leen wax ak nit ñi fi seen xel tollu bañ a wax ak nit ñi fu ëpp seen dégg kon dimension la bu nekkoon ci jullit ñi ñu ëppalante ko muy wax ak ñee di wax ak ñëpp lépp di wax ak ñeneen ci la nga xam ne waxoon na ko ak ñépp muy duggaat ak ñoom ci biir di leen ci dékoteel yoo xam ne seen ak dégg ñoom jotti na ko te su ko de décotee ca biti dégg ña ca des dafay mujj yàqu loolu ba léegi mi ngi am kon noonu la ko jibril indee ci yenent bi sallallahu alayhi wa ki njëkk a waxee nag xam-xamu tasawuf kim njëkk a génn ci mboolem sahaaba yi mooy sidina aliyun karamallahu wajhahu kaana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam kaana yulqi al ahkaam al aama lil aam fi xayaatihi fa kaana isaa xarama cheyan xaramahu ala aljami wa isaa iftarada cheyan iftaradahu ala aljami ala aljami wa kasalika sairu al ahkaami alshariati alzahirati wa maa salika kullihi kaana sallallahu alayhi wa sallam yulqi alqaas lilqaas wa kaana yaqusu bi badi al umari bi badi sahabati doona badin wa huwa saa'iun fi axbaarihi sallallahu alayhi wa sallam falama intaqala ila daari al axirati wa huwa ka xayaatihi fi dunia sawaun saara yulqi ila ummatihi al amru al xaas lil xaas wala madxala li amri al aam lil aam fa innahu inqataa bi mawtihi sallallahu alayhi wa sallama wa baqiya fayduhu wa madaduhu li amri al xaas lil xaas wa kaana abu hurayrata radiyallahu anhu yaqul xafistu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wi'aayni amma ahaduhuma fa basastuhu lakum wa ama al axar fa law basastuhu qutia minni haasal bul'am kon ki njëkk a waxee xam-xamu tasawuf ñoo mooy Seydina Aliyun karamallahu wajhahu ci moom la njëkk a génnee mu ne raaytu rabbi bi ayni qalbi fa qultu la shakka anta anta mu ne gis naa yàlla ci sama bëti xol bi ma ko gisee ci sama bëti xol ma ne ko yow la yow mii yow la xam nga foofa yow mii moom ci waxin jàkkaarloo la waaye ak fàddu nekkatu fa anta lasi xusta kulla ayna bi haysu la ayna suma anta ahadta ilman fi kulli cheyin fa kulli cheyin araahu anta kon kooku moo ko njëkk waxee di Seydina Aliyun karamallahu wajha yonent bi sallallahu alayhi nag des di jël mbir yi nga xam ne pour ñëpp la di ko wax ñépp ñëpp ci dundam te mooy xam-xamu sariatu ak saaxiri sariatu mu jël nag yeneen yi nga xam ne duhut nañ même pour ñëpp la waaye duhut na dañ koy wax ak ñëpp maanaam pour kenn waaye fañ koy waxee nag du ñëpp lañuy dajale wax ko ak ñoom xanaa ñañ koy waxat suñ paree ku yàlla def sa cër ca loola nga jotee ko ca ñooña te loolu mooy baaxab yàlla bi nga xamee ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na àdduna te ak dundam ak ak deexam yépp benn la ca la yu sari atiya yooya dog na ndax jeex na mu door a dem lam ca waroon a xam la na ko lam ca doon wane wane na ko yu baatin yi nag ba léegi nam doon làqoo di ko wax ak ñam ko doon waxat bam làqoo ba teyit noonu la continuer ndax ci làqu la ko doon wax ak ñam ko doon waxat di leen ko xamal kon bim continuer nekkaat tey ci làqu it duwut na ñépp a ko mën a gis kon ba tey noonu la continuer di ko jox ñooñu nam leen ko daan joxe loola nag mooy xam-xamu tasawuf bii nga xam ne tey moom la ñuy waxee xam ne mooy baatunu baatinu bépp tariqa nag tariqa bu juddu rek xam-xamu tasawuf moomu mu ëmb moo tax ñuy wax tariqa ba ak ngëneel lu mën a ëmb amut ngëneel lu gën a foor xam-xamu tasawuf ndax mooy defar jaam bi ba jaam bi mën a am jublu goo xam ne gu dëggu la ci boromam faydu mii ñiy laaj wàccuwaayam ci sa ci lislaam tariqa bee ko ëmb tariqa bi lislaam a ko meññ aleykum salaam wa rahmatullah ñaas Cheikh Ahmadou doomi Mawlana Cheikh Mouhamadou Lamine ñaas ñi ngi lay ndokkeel bu baax alhamdulillah ci la abu hurayrata doon wax ci xam-xam boobu ne wattu naa ci yenent bi ñaari ngise ñaari mbuus benn bi maa ngi leen koy yulli léegi benn ma xamal leen ne su ma ci feeñaloon dara lum tuuti tuuti ñu dagg sama baat dégg kon moo firi firil képp kuy wax ne yenent bi amut xam-xam bu muy feeñalat bu muy nëbbu kon waxi abu hurayrata jooju moo ko ko firil mu ne jëlal naa indil naa leen ñaari ngise ñaari ngise yoo xam ne maa ngi ko jëlee ci yenent bi sallallahu alayhi wa benn bi maa ngi koy yulli léegi mu yulli ko mooy xam-xam beeg hadis yi mu doon ja eh, joxe mu ne waaye benn bi nag bu ma ci feeñaloon dara lum tuuti tuuti ñu dagg sama baat wax na dëgg booba mooy xam-xamu tasawuf bi imaamu junaydi radiallahu anhu daana def bu ko xaal bi ñëwalaan bu demee ba mën a tuta boppam ndax yegg na ci tolluwaay boo xam ne mën a tuta boppam bu tijjee ko bay wax ñii ne Junaydu la ñii Xalaaj dana wax wax joo xam ne du ca jële lu may dañ koy fitnaal fitna bu metti ngir la muy wax ëpp gu muy ëpp dégg ak ñi doon déglu mujj na ñu fitnaal ko fitna yoo xam ne su ko xaal boobu ñëwalatee dafay dem tëj buntu kër ga tëj buntu peron bi tëj buntu néeg bi dugg ca ron lal ga su tuuroo tuuru tuuru ba kari ba dal tijjiwaati buntam toog kon nekke am na ci xam-xam loo xam ne soo ko waxee ci biti ñu yéefar loola mbaa ñu weddi la te su boobaa lañ weddi dëgg la waaye yaa ko defee ci noo xam ne dugul dëgg loolu moo tax ñuy wax ne lu garaaw la ci jël xam-xamu tasawuf toog ci biti di ko waxtaane fa man daqaqa nasara alima annahu la yaxruju sheyun min ulumi ahlillahi taala an shariati wa kayfa taxruju ulumuhum min ashariati wa hiya wasilatuhum illa allahi azza wa jalla fi kulli laxsatin mu ne kon képp ko xam ne settantal nga danga gis ne xam-xami góor yàlla yi génn amut dara lu ci génn sariatu akañ ah dara du ci génn sariatu sariatu lu tax parce que sariatu mooy wasila bi nga xam ne jokkuwaay bi nga xam ne ñoom ñépp ci lañ jaar ba yegg ci yàlla yaakaar naa ne nag fi nga jaar ba yegg ci yàlla duwut loo xam ne danga ko doyadal mbaa danga ko suufeel kon képp ku rafetal gisin danga xam ne dëgg-dëgg yi xam-xamu tasawuf mooy jëmmi shariatu shariatu ci boppam li muy jëmmal toujours mooy xam-xamu tasawuf nan lay jëmmalee xam-xamu tasawuf ana la ci njëkk shahaadatu an laa ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah kon kay yow wax nañ la ne la tudd yàlla mooy caabi diina lislaam parce que ku waxut laa ilaha illallah bokk goo ci jullit ñi te ku bokkut ci jullit ñi toggee fii yiñ togg jullit ñi togguñ ko kon laa ilaha illallah mooy tax jullit bi bokk luñ ca teg muhammadu rasulullah kon wan nañ la ne la royte royukaay baa ngi noonu jëlal yonent bi sallallahu alayhi wa def ko muy sa royukaay ci yàlla su boobaa nag togg nañ la lu ci topp julli xoolal bi ngay julli ni nga jeexee ci yàlla ana bi ngay julli kan ngay waxat ana waxi kan ngay wax bi ngay jàng ku moom loolu ngay jàng waxi kan la waxi yàlla meloo kan nga meloo melow yàlla ana ban côté nga jublu ndax fu la neex nga jublu yaa nga jublu ci néegab yàlla bi ba julli gi jeex waxoo kenn luñ la mënoon di teg ke nga gën a fonk bu la doon woo ba nga pare rek na ko dama doon julli waaye doo ko uyu ci julli xoolal ni nga jeexee jamono bi ngay julli ci yàlla kon kay jaamu yàlla ci tasawuf rek lay jëmmal xoolal ni nga daggee ci waxtu wi temps boo xam ne yàlla nga ko delloo xoolal soo jëloon sa lépp nag jox ko yàlla du gën a baax xoolal heure bi nga jox yàlla jamono boobu ni nga féexee jamono boobu ni nga oyofee su fekkee ne sa dund gi lépp da koo jël jox ko yàlla nu muy mel du gën a baax xoolal bi ngay woor melokaanu koor kan moo dul lekk kan moo dul naan yàlla xoolal ni mu jëmmalee yàlla kaaba ja xoolal néegam yàlla ba bi ngay aj màkka ana fan nga dem ca yàlla nga dem ca néegam ba nga dem kon xoolal na nga mel yow ujaaj bi ba ngay aj la nga doon def na nga doon mel ñu ne la bul xuloo bul xeex bul daggante bul def lii bul def lii lépp ñu aaye la fu nga attan koo bàyyi ngir bëgg sa aj baax kon aj googu lan la doon jëmmal xam-xamu tasawuf kon xam-xamu tasawuf moo lay baloo lépp lu dul yàlla mooy moo lay jàppaloo yàlla kese kon lii mooy xam-xamu tasawuf bi nga xam ne moom la góor yàlla yépp ittewoo woon moom la góor yàlla yépp doon nandal taalibe yi ut yàlla ci ñoom moo tax euh, ñi doon duggloo taalibe yi xalwa pour jegeel leen yàlla dugg xalwa yooyu ñu doon dugg xalwa wax naa ne modification yi ñëw léegi ci xalwa ñu koy def ngir soxlaay àddina taxutoon xalwa jóg li taxoon xalwa jóg mooy pour mën a dellu ci yàlla bañ demee ba xalwa moomu di dañ ndànk-ndànk di ut yàlla am ñoo xam ne su leen fekkoon ñu samp kër ñu tas kër ga dem uti yàlla Cheikhu Tidiane rek radiyallahu anhu ul amoon na soxna awaa miy jóg di uti xam-xam boobu waaye dafa tey tey wacc soxnaam na pareeguma am na leneen lu ma yitteel ci sama boroom daldi di ewi soxna sax dem yoonam dem uti xam-xam boobu damit am ñoo xam ne daf leen a tax a nekk ci biir armeel yi dëkk ci armeel yi dafa fanaan am ñoo xam ne tax na lekkatuñ lu ñuy togg waaye euh, naanatuñ ndox xobi garab yi lañuy ñuy yey di ko muucu di lekk ci meññeenti garab yi soxlawuñ li ñuy togg lépp pour bëgg a jege yàlla moo tax taaliba Seydina Cheikh ba ne ko di tagg Cheikh Tidiane ba ne bilaa xalwatin rabba wa rabbaw bi xalwatin fa shataani maa bayna yo fii day ni man xalaa mu ne góor yàlla ya ñoom ci xalwa la ñuy yaree seeni taalibe ba yóbbu leen ci yàlla waaye Cheikh tijaan moom dafay yar ay taalibeem ba yóbbu leen ci yàlla ci lu duwut xalwa ñaari naan waaye ngi noonu yoo xam ne yu wute la kon xam yàlla googu nag dina cheikh doon nandal ay taalibeem ba ba muy jox ijaasa taalibeem ba leen nam tuddati muhammadul hafiz naka la ah ki mu waxoon ne ko soo demee bul woote tooga bul uta feeñ toogal ba yàlla feeñalal la Muhammadul Hafiz Muhammadul Hafiz bi ko Seydina di jox lijaasa daf ko jox ijaasa soo demee bul uta feeñ ba yàlla feeñal la mu ñëw denc ijaasaam continuer am njàngaleem ci biir taalibeem ba bi ko yàlla namee feeñal benn jaamab yàlla bu yàlla xamal ne Muhammadul Hafiz am na lum jëlee faas ca Sidina Cheikh loola dañ ko ko denciloo demal laaj ko loola mu jox la ko jaamab yàlla booba yeewu ñëw ci Sidina Cheikh ñëw ci Cheikh Muhammadul Hafiz di xuus ba yegg si sokk ci kanamam na ko sëricë bi nga indiwaale mu jógee faas sama wàll laa jël si mu ne ay téere laa indi suñ paree ñu dem nga tànn téere bu la neex nga jël lu la ca neex nga jël mu ne ko laajuma téere la la cheikh jox te ne soo demee bul ko feeñal ba yàlla feeñalal ko boppam loolaa ma tax a moom feeñalut te loolu lañ ko waxoon mu xam ne kon yàlla moo ñëw tey pour feeñal lim indi mu jox waa jooju lam jëlee woon faas xamal ko ko gàdd ga mbooloo ma yépp kenn fanaanut keroog ci lal mbaa ci benn xayma lu dul ñëw nga sukk ci kanamam ne naka sëriñ bi am na leneen lu indiwaale woon te làq ko ñun ñépp tey loolu lañ ut loolee nag demoon nañ ba mujj tuddee ko fayda waaye mujj loola dog ñuy dem di dem di dem ba yàlla dogal faydu bi feeñ ci loxo Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ci niñ ko jaaree rekk ci kaw bi mu yëgsi ci Mawlana Cheikh Ibrahim moom faydu bi suñ duggee ca nañ ñu ko xamalee dëgg-dëgg dafay mel ni dañuy door a sos jotaay bi waaye daal faydu boobu mooy xam yàlla gi ñuy wax te mooy xam-xamu tasawuf bi nga xam ne itam moom la tur wi gën a tasaaroo ñuy wax tasawuf tasawuf dégg mu nekk xam-xam boo xam ne yàlla du ko def ci kenn lu dul lay wane ne xam-xam boobu mu ngi ci yow dangay nekk insaanu shar'i nitu sariatu ngay doon waaye ku sellal sa sariatu danga nekk koo xam ni yenent bi sallallahu alayhi ci ngay tënku te doo ko ak dara doo ko yemale ak kenn doo fekk ci aji naanam lu dul da nga fekk mu nekk wàlliyu yàlla comme na muy nekkee arifu billah nga dema lan mooy seen différence ma ne la in awliyaahu illa al muttaquun wàlliyu yàlla yi mooy ñu ragal yàlla te taqwa wax naa la ne mooy li laaj liñ laajoon Seydina Cheikh radiallahu anhu mu ne mooy nga topp ndigal yi moytu ba moytu tere yi te moytu koo def ñooñu ñooy awliyaa u yàlla yi ñan nag ñooy aarifiina yi da nga fekk ne nekke bala ngaa bokk ci aarifiina yi da ngay njëkk bokk ci ràngam wàllu yi su ko defee doora bokk ci aarifiina yi ndax ca awliyaa u ya ca la ñuy tànnee ña nga xam ne ñooy ay aarif mooy jaamab yàlla boo xam ne bim xamee yàlla xamaatut leneen lu dul yàlla bi muy jëflante ak yàlla jëflanteetut ak kenn ku dul yàlla kon nag kuy jëflante bim bi muy bëggit bëggut kenn lu may yàlla la bëgg lépp lu muy bëgg yàlla la ca gis yàlla mooma lay bëgg lépp lu muy topp yàlla la ca gis yàlla mooma lay topp kon kooku ngay fekk mu nekk aarifu billah bismillah ñooñu ñooy waa kër suñu Cheikh Mouhamadou Lamine Ibrahima Niass radiyallahu anhu ñu ngi leen di tatagal bu baax bismillah kon loolu moo tax ba xaal bi mutasawifiina yi di dund kenn du ko réere mutasawifiina yi kenn du ko dégg lu may koo xam ne dangaa réere seen xaal loolu la Abdul Wadud doon wax ne te Cheikh Ahmad Bamba andi na ko radiyallahu anhu ci benn téereem axiru samaan mu ne kalaamul awliyaa i lastu afhamu fa innani ana ana wa hum humu dégguma leen ndax ñoom ñoom lañ man man la kon xam-xam boobu la doon dégg yi lu mel noonu ba tey moom la ci Ahmad Bamba doon expliqué ba yëg si ci mu andi wayu abdul wadud woowa dugal ko ca ja na kalaamul awliya ilastu afhamu fa innani ana ana wa hum kon mu taxasuuna yooyu kuréel lañ boo xam ne xaal ba ñuy dund dund ko mos ko mooy tax nga xam xaal ba nga xam ne moom la dund seeni wax dégg ko xam ko tollu da mën a xamee seeni wax lan lay firi danga dégg ci làkkat wax moo ko xam ne soo jàppee moo bi mu wax soo ko yóbboo ci beneen lang dafay firi lu bokkut la ñuy firi ci ci doon wax day am hmm. comme li ma xam bëriwut damay wax toujours ne kii tudd ci ñun olof ah tudd ci tubaab yi jégoo bu nga wax ah ah baat bi nga wax jë kon nañ xam ne suñ bëggee ñëw ci tasawuf nag ana lan lay jëriñ ci jullit bi dañ lay wax ne li ñuy jëriñ ci jullit bi moo di soo gisee Cheikh Tidiane yi waxoon ne faydu bi dana ñëw fekk nit ñi ci jafe-jafe fekk nit ñi ci bekkoor jëlee naa ci làmmiñu Cheikh Ibra Fall radiallahu anhu muqaddamu baay bu mag boobu nekkoon Koosi mu ne bañ ko laajee baay ci Koosi ne ko Cheikh Tidiane day dafa waxoon ne feeñu faydu bi dafay fekk nit ñi nekk ci jafe-jafe ak ci bekkoor lan mooy bekkoor bi ak jafe-jafe bi naam bekkoor amoon na jamono booba ci zahir nit ñaa ngi doon dund bekkoor mooy jamono ba ñuy jël cox di ko defar cere jël mbànq mbànq ay doom la mbànq naase waaw kay gannaaw xam na ko dëbb ko defal ko cere new lañu ñu bari di xam jël new di ko rënk di ko sulli di ko lekk booba lekk dafa amutoon kon fekkoon na nit ñi ci bekkoor fekkoon na nit ñi nekk ci rafle bàyyi ne gis naa nit ñi di wodd ba wodd seen kaw lal yi gis naa nit ñi di wodd ba wodd seen buntu néeg yi ak seen fenêtre yi ñu ne cee li fenêtre nuñ koy woddee buntu néeg nuñ koy woddee ca lañ gannaaw gi lañu gis nit ñi di woddu ba bay ut ay rido ñu ne kon lii la lii la doon wax booba ni bekkoor amee woon ci zahir nit ñi di ko dund noonu la bekkoor amee woon ci xol yi waaye ku mat siy wax la gën a mat loola lay wax Cheikh Tidiane radiallahu anhu bekkoor jim doon wax mu ne na leen ko bàyyi firilee mooy xol yi dafay wéet ci yàlla maanaam xol yi dañuy ñàkk yàlla bekkoor gi xol yi di bekkoor ci yàlla mooy bekkoor bi Cheikh Tidiane radiallahu anhu doon wax mu ne jafe-jafe ji nag ñu ne ko mooy lan mu a jafe-jafe gi mooy taalibe dana daw ñëw ci sëriñ wut lu may bëgg mu xamal ko yàlla sëriñ ba fekk sëriñ ba gën koo réere yàlla te du ko mën a wax ne ko xaw ma yàlla ba dina ko xamal jafe-jafe gi dox ci diggante taalibe bi nag ak sëriñ bi muy déng-déng rek sëriñ bi mënu ko yeewi ndax bëgg ta sàjj ab sagam taalibe bi itam di dundee yaakaar joo xam ne du ci teg bëtam yaakaar ja day mel ni ñu nax njunux mooy bu naaj wi tàngee la ngay séen ci sa kanam boo nekkee ci tali bi mi mañ-mañi mel ni ndox loola moo tudd njunux soo ko toppee ba yegg doo wóoloo lu may rek nga xoolaat ci sa kanam di ko séen da ko topp ba keroog ker gi di sedd doo gis ndox ci dara kon yaakaar boobu taalibe yi doon dundee ci seen diggante ak sëriñ si loolu mooy jafe-jafe bi nga xam ne moom la Seexu Tijaan doon wax radiallahu taala anhu kon loolu da nga fekk xam-xamu tasawuf lii ñuy wax ba tey encore ci fayda bi loolu da nga fekk mooy li nga xam ne moom la doon ëmb moom la doon wund melokaanu jaamab yàlla boo xam ne jariñu na ci faydu bi aw melo mooy nan mooy kooku dootu mën a jëw dootu mën a jëw ndax jëw mooy ngay wax ci nit ki ci gannaawam te kenn mënta xam yàlla di gis ne yaa ci gannaaw ki ngay wax bay uta wax ci gannaawam te fekk la ngay waxit it nekk lu am waaye bu dee lu amut moo gën a bon jëw ndax boole nga ca ay sosal nit ki bokk na ci li muy def ci nit moom xam yàlla dootoo mën a ngistal ngistal nag mooy di def ngir kii bëgg kii xam ko loolu mooy ngistal ku xam yàlla dootu mën a ngistal donte la muy def ak la muy joxe yépp ci biir nit ñi la koy joxee sax taxul moom mu nekk ci ngistal parce que moom xoolut bët yi connecté mi ngi xool xol bi nga xam ne moo connecté gisatut lu dul yàlla connecté na ci yàlla kon yëg na ne mënatut def ngir kenn waaye ci tax muy jëf kooku mooy rabbil izzati wal jalaal bokk na ci xam yàlla li muy def ci jàmm bi ku tar ak mbëggeel lay doon parce que mënatut bëgg lu dul yàlla tax na ba képp ku muy bëgg ma koy bëgg ngir yàlla ja nga xam ne moom la gis ci moom bokk na ci melo ya muy def ci nit ki dafay tabe ba nga xam ne lay waral tabe ga moo di jamono buy joxe gisul na ma ngay jox kenn yàlla la gis na yàlla lay jox yàlla mooma muy jox moo tax bu koy jox daf koy jox léppam dégg parce que yàlla ku ko jox mu mu multiplier la bokk na ci li muy def ci nit day dind ci nit ki coxar ak kañaan nga ne ma ma foogoon na benn la ma ne la ndaxam benn las dafa am rekk faydoo ca feeñ dégg nga kañaan dem na ba ci lu nit ki am nga di ko ko añaane ba bëgg lam am jóge ca moom ñëw ci yow coxor nag mooy nga añaane ko ko ba añaane ko sa bopp na même su ma koy ñàkk sax waaye bu ma ko gisati rek mu am ko ku xam yàlla jikko yooyu dafay dañ ci moom ku xam yàlla dafay bëgg ñépp yemale ki ko defal lu baax ak kii wax ci moom lu baax ak ki ko def lu bon ak ki wax ci moom lu bon ñaar yépp dafay yem ci moom parce que benn bu ci nekk feeñu yàlla moo nekk moom lay gis ca la te bu ca gisee feeñu yàlla jamono bu yàlla di wax ak moom balil insaanu ala nafsihi basiratu nit a gën a xam boppam la yàlla di wax ak moom bu fekkee na wax ja lu dëggu la ak lu métti métti na xoolaat boppam yàlla nga koy jubbanti pour mu tegu ci yoon su boobaa kooka def ko xarit bu ko def noonu nga nekk ci njuumte ki la orienté teg la ci yoon kooku dama ne def ko xarit su dee jariñu nga ci yàlla mais bul ko def noonu ki jariñu ci yàlla da ngay bëggal ñépp li nga xam ne loolu nga bëggal sa bopp loolu la yonent waxoon sallallahu alayhi wa sallam laa yuminu ahadukum xata yuhiba li aqihi maa yuhibu li nafsihi amut kenn ci yéen ku mën a am ngëm yàlla gu mat lu dul li nga bëggal sa bopp bëggal ko sa morom bëggal ko ko yow bëgg rek moom nga mën a participer mënoo ko koo jox mënoo ko koo defal kon bul ko ngéeju mu ñàkk ko waaye del ngéeju mu am ko parce que bu ko amee xoolal lan lay jural société bi nga xam ne mooy l'islam soo xamee yàlla da ngay bëgg dimbalante ak ñëpp doo bàyyi kenn jàppalanteel ak ñëpp képp ku nekk ci loo xam ne lu baax la nga jàppalante ak moom ci lu baax li ku nekk ci loo xam ne baaxul nga dimbalante ak moom fexe ba génnee ko ci lu baaxut loola su boobaa dimbale nga ko kon nangeen xam ne jikko yi nga xam ne su nekkee ci ko xam yàlla dootu mën a bon jikko yooyu rek moom la yonent bi dund ak sahaaba yi ridwanullahi alayhim moom la sahaaba yi dund gannaawam moo demoon ba jikko yooyu raaf ci nit ñi sëriñ si bëgg koo delloo siwaat ci nit ñi ñi daal di tracé tarixa yi la gën a gaaw nag pour may ko nit ki mooy tudd yàlla moo tax ñu doon leen jox lim yi ñuy tudd yàlla lu bari wutal ko ay waxtu pour yàlla suñ joxee waxtu yooya yàlla yàlla nekkal leen ca waxtu yañ ko joxut man kaana lillaahi kaana laahu kon lii mooy li nga xam ne mooy importance su xam yàlla dégg nga moom la Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu doon wax ni maa ngi xool doomu aadama bët boo xam ne ku ko xool ku ko xool nit doo ko mën a bañ radiyallahu anhu kon waxam yooyu yëpp ay tarbiya la yoo xam ne dafay régler jàmm bi dégg dafay regle jàmm bi waxi bàyyi soo ko xoolee lépp ak ay jëfam toujours da ngay gis ne luy rekk la jàmm bi ba xaalab maj soob bi nga doon dund nga xëri pour nga nekk ci xaal boo xam ne wala maqaama boo xam ne mooy baqaaw bu sañoon ay taalibeem yépp yéeg maqaama baqaaw te mooy tegu ci sunna yenant bi sallallahu alayhi wa sallam jéem bi ci ay meloom ci ay waxam ci ay jikkoom ci ay jëfam ci léppam kon ci loolu ngay yurndu gisaat ci ay waxam soo demee ci jawaahir rasaayil benn jaamab yàlla boo xam ne diir ak dundam amul num xëy xëy wut Mawlaana Cheikh Ibrahim ci côté bu nekk xataa bu daan tukki sax mu ngi koy jéem a koñe ci wiisaa yeeg yépp dégg nga fu teraanga jógee war a ñëw ma ngi koy uta baare ba du yegsi bés bi koy yàlla jële mu fekk ko ci Kossy xibaar bi yegsi ci moom mu jot xibaar bi na teg daa dina alhamdulillahi rabbil alamin inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ne ko waay yaa ngi jaaxal di alhamdulilahi rabbil alamina ji moom mën nañ koo dégg waaye inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ji lu mu ci do mu ne da may laaj mu ne ko laaj ñu ne ko laaj nañ la mu ne li tax ma sant yàlla mooy dama yurndu sama xol bi ma ko déggee gisuma ci dara luy tegtale ak ndokk maanaam ak kontaan ci demam gi yëguma ci demam gi benn kontaan donte xam ngeen lim dund ak man ñàkk kontaan gi ma ñàkk kontaan ci demam gi may yëgee ci demam gi li may yëg même su sama xarit demee loolu moo tax ma ne alhamdulillah gis nga mu ngi doon yurndu moom boppam ba xam ndax maqaama mat gi ko yàlla jox ma ngi ca toog wala wàcc na ca nit ku nekk danga war di seet sa bopp foo toll dégg nokki boo nokki rek yow jaamab yàlla bi rawatina yow mutasawif bi nga contrôler sa bopp ba xam ndax sees bi nga toog yaa ngi ci wala wàcc nga ci suuf mu ne loolu moo tax may sant yàlla dégg comme nag li muy yëg bu ñàkkee soppeem loolu la yëg mu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun pour yàlla yool ko ci musiba bi yàlla nag ku ko wax danaa la yool ci musiba bi te dinaa la wutal lu gën li nga ñàkk kon kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahim borom faydu bi nga xam ne faydu boobu ngeen bëgg a xam ci lislaam la bokk wala bokkut ci lislaam wala ban taxawaay mooy taxawaayam ci diina lislaam kon taxawaayu faydu bi ci diina lislaam bu ñu leen koy tënkal moo di nangeen xam ne yàlla subhanahu wa diina lislaam su nekkoon jëmm ju ñuy xool di ko gis di ko làmb di ko daj mooy yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax bu duutoon ak yenent bi diina lislaam du am kon yenent boobu mooy jëmmi diina lislaam moom la xamal lan mooy lislaam moom la xamal ñi ci nekk ñoo tudd nan ñoom la wax jullit ña ca nekkut ñoom lañuy wax yéefar yenent boobu bi ko yàlla di tagg num ko taggee ndax juddu bu rëy la ko taggee ci ndeyam ak baayam la ko taggee mi ko taggee wa innaka la ala xuluqin azim jukko ju kawe jooju mu taggee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jukko jooju mooy tasawuf mooy xam-xamu tasawuf moo tax danaa di faral di waxtaan ak mbokk yi ne suñ duggee ci la ñuy wax xadratu ahadiyatu ñëw ci muhammadiyatu ñëw ci ahmadiyatu ñëw ci xutbaaniyatu la may faral di wax foofu suñ yëgsee foofu moo di ne borom sees boobu nag moom ana lan la indi kii dafa indi tawxiid soo demee ci ahadiyatu doo fa fekk lu may tawxiid wéetal yàlla rek mais boo ñëwee ci muhammadiyatu doo fa fekk lu may baqaa'u ndax bahdal fanaa'i li koy wéral mooy nga am baqaa'u baqaa'u mooy yenent bi sallallahu alayhi wa force nga amee melo yenent bi jëf-jëfi yenent bi fees del te em ak ñépp nag kon melow yonent baa ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam waaye boo ñëwee ci ahmadiya foofu nag ngay fekk gannaaw bu mbir mi mele ni li doon nelaw mu pëkk-pëkkal mbir mi yee ko kooku mooy kan kooku mooy Cheikh na Ahmad Tijaani radiyallahu anhu soo gisee mu ne tariqa tijaani yi mooy sangab tariqa yi ci ngay fekk toggale gii nga xam ne moo dëppoog lislaam liimaan lixsaan baatab astaghfirullah mooy mooy lislaam baatab salaatu ala nabi mooy iimaan baatab laa ilaha illa mooy lixsaan lii ku ko ku ci ne jullit nga ku ci ne wuddoo jullit moo tax ñu ne tariqa bi duñ ko jox lu dul jullit kon kooku mooy ahmadiya cheikhu tijaani radiallahu anhu waaye boo ñëwee nag ba ci càppaacooli gi di xutbaaniyatu dégg nga ki ñëpp te kenn du ko xam lu dul koo xam ne yàlla naroon na laa jëriñ ci moom kooku yaa ngi koy fekk ci lan mu defaraat jikko yi ba delloo siwaat jikko yóbbuwaat jikko yi ca cosaan kon xam yàlla dëgg-dëgg du nekk ci kenn sa jikko di ñaawati ku nekk lay gënal sa bopp ku nekk moo lay gënal sa bopp ca maqaama ma gën a mat ci beneen bi ci topp mooy dangay ngay emale ñëpp ak sa bopp li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko ñëpp yàlla ñu yàlla may loolu kon tasawuf su amee lenn lu muy def ci doomu aadama bi ci jullit bi mooy lii lii nag yaakaar naa ne moo tax yàlla wàccee ci jaam yi ci jullit ñi diina jii di diina lislaam di defar nit ñi mooy diina joo xam ne dafa war di dox taxawut dafay doxam dafay kontine diina jooju lañu yàlla jox kon li ci des mooy ñun nañ xam liñ am ñu fonk ko bu baax te tey su ngeen xoolee li réew mi di jooy rawatina taa yi muy jikko yi yàqu yi ñi ngi def lii ñi ngi def lii nañ andi point euh, euh, euh, peine peine de mort peine de mort mooy lan niñ war a téye diine ji yàlla wax nañu ko niñ war a dundee ak diine lislaam yàlla wax nañu ko yàlla mooy borom bi nga xam ne mooy borom jaam yi moo xam jaam yi li leen mën a régler parce que moo moo leen amal amut kenn koo xam ne amal nga sa doom su fekkoon ne ku nekk yaa amal sa doom lu tax ñëpp amuñ doom kon yàlla mooy ci nga xam ne moo amal jaam yi yépp kon moo xam lii defar jaam yi comme ni mu xamee lii yàq jaam yi kon nag su ne defee leen nii lay dëgg tey dëgg ku ko wàccut moo dinañ def ni yàlla wax bañ cee modifier dara kon doxal doxalin wi nga xam ne moom la yàlla sant ñu doxalee ko dund gi loolu mooy politique bu rafet modifier doxalin boobu indi ko ci niñ bëggee kooku mooy politique bu ñaaw yàlla moo ne ku rey ci tey nañ ko rey ku sàcc nañ dagg loxoom dégg ku sàccati ñu daggaat duñ dañ di dagg ba cër ya jeex takk su boobaa bu bëggee sàcc xanaa bëgg-bëgg baa fay des waaye yaakaar naa ne sàcc dootu ko yomb te ku xam nag ko sàcc ñu dagg sa loxo léegi tey càcc jeex fi ñu dem Makka gis nañ ne suñ noddee jaaykat yi yépp ca mbedd ma la ñuy bàyyi seen njaay ma dem julli ji wañeekuwaat ñëw ku nekk ufaat sam njaay doo bañ julli ji ngir na aw ma ku ma fi xaar ah lu tey ñu dund loolu kuñ na rey na lu tere ñu rey ko ñoo ëpp yàlla yërmande atte boobu lañu war a indi mbir mi door a baax fekk kenn reyut ci tayal ñu jël ko rey ko digg bëccëg télévision yépp jël ko ñu tasaare ko ci monde bi liñ bëgg mu régler dara du ci régler dara du régler ku ciy joxe ay addiya yoo jëlee ci naar yi wala foo ko mën a jëlee ni ngay bëggee ñi filmer ko ñépp xam ne yaa ko joxe dëgg ak yàlla gi lu tee moom ñu filmer ko nangu ko te jëfee ko kon mbokk yi dara du defar jikko yi lu may la ko doon defar démb nañ leen góor góorgóorlu delluwaat ci yàlla dellu ko rafet àndoo nekk benn na nag ñun ñi nga xam ne dañuy wax ne ñun ay taalibe lañ dañoo am sëriñ nangoo am kilifa ku nangoo am kilifa nay jëf jëfinu ku nangoo am kili kilifa waaye ne am nga kilifa te doo def jëfinu ko am kilifa woowu jëfin nañ koy moytu nañ leen àndoo nekk benn nañ leen bëggante di waxtaanante ku nekk di wax ak sa morom la koy jëriñ te yëg na li koy jëriñ mooy li lay jëriñ waaye di wax li lay jëriñ di def li lay jëriñ su boobaa kon yow njariñ danga pare pour xëcc ko jëmee ko ci sa boor waaye pare woo pour yaatal ko su boobaa yaa ngi xatal lu yaatu nañ leen àndoo ngir jëmmi yàlla di jëflante ngir jëmm yàlla oya falal suñ kilifa yen bi nga xam ne yenu nañu ko waaye bu teqalikoo ñëwee te ñun ñëpp ñuy oote woo ay dongo nañu seetaat suñ bopp nañ leen àndoo nekk benn mooy dëgg benn yàlla mooy suñu borom benn yënant moo di suñu yënant mawlaana cheikh ibrahim radiallahu anhu mooy suñu royukaay nañ xam ne tey suñu sëriñ cheikh mahamadul amin mii suñ gidd tey moo téye ci suñu nos liñ koy yombalalee nag kàndoo gi ñun ñëpp ñu nekk benn te bàyyi wuute gi lu mën a doon nañ ci bokk toog waxtaan sotti xalaat ku nekk xalaat ba mu am mu feeñal ko ñun ñëpp ñu bokk ci waxtaan su dee lu ñuy fas ñu fas bu dee lu ñuy fecc ñu fecc bu dee lu ñuy yëkkati ñu yëkkati bu dee lu ñuy teg ñu teg olof dafa wax ne wat gaal ak yëgoo bu yëgoo nanguwut am liñ bëgg mu sotti dara du ci sotti nañ leen góorgóorlu lii yëpp li tax ñu di ko wax pour ñun ñëpp kenn ku ci nekk rawatina man mi ngeen mi yàlla nattoo ngeen teg ma fii ma toog di wax pour laaxe biir sama bopp laaxe biir kenn kum ci man di doon ngir suñ liggéey rafet suñ jëf mën a nekk jëf joo xam ne jëf ju taxaw lay doon ju dëgër lay doon lépp mën a yomb waaye kenn ku nekk bu sàqee koo aw na le kale aw na le kale aw na le kenn ku ci nekk di wax lu ñaaw ci sa morom kenn ku ci nekk gëm na yaa gën a mat sa lay wane ne mat nga jéem a la matal sa waaye bul ko daw bul ko reetaan bul ko doyadal kenn ku ci nekk danga war a jege sa morom jox ko sa xalaat jox ko sa pas-pas bi nekk ci yow nga jox ko ko mu jox la ba nekk ci moom lii daal bu amee lépp dana yomb waaye bu amut première ñoo njëkk a weddi suñ bopp ci li ñuy oote woo ci xam yàlla ci bëgg yàlla parce que ku bëgg yàlla bëggal ko jaamam yi alxalqu ayaalullah ahabuhum illa allahi ahabuhum li ayaali yonent saa sallam nee na mbindeef yi njaboot ak yàlla la ñu ki ci gënal yàlla mooy ki gën ci njabootam gi kon ki jaami yàlla yi bëggal leen jàmm yéene leen lu baax li nga bëggal sa bopp nga bëggal leen ko xamal na bokk nga ci ñi gënal yàlla nañ leen rawante ci loolu te bañ a rawante ci yeneen yi formalité yi amul njariñ amul njariñ ñaar ñiñ tuddee tey conférence bi ñooñu ay jàmbaar yi fàkk tëdd lañu woon ñoo xam ne joxe nañ seen bopp ba jeex takk dégg nga gor gi seeni nduur gone gi gën a tuuti sax ci mbooloo ne xam na ko ci oyofal boppam dégg li ko yàlla may ci bëgg yàlla ci dëggu ci sellal ak kàndoowam ba ci ba ci kàddoom yu mujj loolu du caaxaan loolu dëggu rek moo koy maye Cheikh Tidiane Diop radiyallahu anhum jamian kooku moom dama wax ne dundam gi lépp ba mu jeex dama bëgg a wax ne jaamab yàlla la boo xam ne dafa sahiid dafa sahiid ku gis feebaram sahiid la waaye ku xam dëgg-dëgg jikkoom ak lim doon dund alhamdulilah leen wax ne ñooñu dëgg-dëggi taalube ak taalube lañ dundee ba tey jógee fii kon tey bu njëkkatee lu mel nii tuddee leen ko ngir teraanga ngir kóllëre duñ man lu may ñaanal leen yàlla xam naa ñi xam sax dañuy foog ne maa joxe tur yi fekk wallaay joxewuma ci dara yëguma sax bañ koy xalaat ndax man ba léegi yëguma na dem nañ ba léegi yëguma na dem nañ kon nag ñi nga xam ne tey ñooy ñi daa daaira bi am xalaat yu rafet yooyu la ko daree ci président ba ci ci gën a suufee ñu am xalaat yooyu rafetlu ko joxe tur yi ñëw wax ma ko ma rafetlu ko kontaan ci torop maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax lii moo di ak mbokkoo ci yàlla xam ngeen ne président Doudou wallahi la xamul sax Cheikh Tidiane xam gu xam gu xam gu mat gi mu ko jooy waaye rek xam na yëg na ko ci kàndoo xam ni mel ci sama xol ak ci samaw làmmiñ ba tax mu jooy jooy yi nga xam ne jooy na ko kon lii lépp kenn ku ci nekk yaa ko mën a liggéeyal sa bopp nañ leen góor góorgóorlu rëj rëjloo ci liggéey boobu nañ leen góorgóorlu ci liggéey boobu ñun day nañ xam ne yàlla may nañu àndandoo boo xam ne jeex na takk ci yàlla loolu kenn sikku ko moo tax bu may déglu léeg-léeg yenn parce que ngi wax yoo xam ne damay xam na rek euh, yooyu yëpp kuy wax waxi bébant soo gisoon tey ku màndi sàngara wax ya muy wax même su nekkoon dégg sax doo ko déglu ngir da ngay wax ne ma ngay bàyyeekoo ci ku màndi sàngara ay waxam jarte jàpp kon nag na ngeen xam ne yàlla may nañu ñu àndoo ak jaamab yàlla boo xam ne ñun ñoo gën a néew ci ñim àndat te it ñun ñooy tiitaroo ànd ak moom waaye moom tiitaroo hut ànd ak ñun ñun nag ñoo mën a góor góor lu liggéey sëriñ bi tiitaroo ànd gi nga xam ne ànd na ko ak ñun ñoo ko mën a liggéey niñ koy mën a liggéeyee nag teg suñ tànk fi mu teg tànkam sellal àndoo nekk benn àndoo nekk benn jëmm lii mooy waxam jamono bu nekk lépp lu muy digle lii la ciy njëkk a digle moom lay mujj digle lépp lu muy tere mooy teqalikoo wuute lii lépp ay waxam la nañ ko ba xel bu baax ci jëm ko dund jege sëriñ bi bëgg sëriñ bi du buuxante jël sa jëmm sës ko ci jëmam du jox ko loxo du foto woog moom du question yooyu yépp mooy dëgg-dëgg yi li taalube war a tiitaroo ci digganteem ak sëriñam sax mag ña ma gisoon ñu gën a bëgg Mawlaana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ña gën a jeex ci moom gën ko xam doo ci gis kenn Mawlaana Cheikh Ibrahima toog mu ñëw toog ci wetam ak ay néew te ci digal nga koy def ndax ñun léegi foofa ñu ngi fi teg suñuy tànk ñaata foto ngeen gis yoo xam ne soo xoolee gis Baye Cissé si daal yu Cissé ak Baye ak a neex a ak a neex a xam ngeen lu ko def li ci mënta ñàkk moo am waaye dafa nekkoon génn jëmm du wutoon ñaari jëmm taaliba bu nekk yaa mën a liggéey nekk ak sa sëriñ benn jëmm yàlla nañu ko yàlla may nañ leen góor góorlu tegu ci yoon yi loolu mooy yëf yi mbir mi mënuñ koo jeexal nangeen xam ne mbir mi nekkut ci kii la du kii fii la du fii affaire bi du loolu kuy oote woo ne xam nga yàlla taxaw naan mbir mi fii la du fii ci kii la du wut ci kii xaw ma li ngay wax dëgg la xaw du dëgg waaye du wut yaw yaw waaw du wut yow kon nag nañ leen gën a la bu baax nañ leen gën a la bu baax di gën a xool suñu bopp suñ jëflante suñu àndoo dëgg la wala du dëgg ku nekk na nga seetaat sa bopp ci loolu force ñu andi melow tasawuf tasawuf mi nga xam ne moom la faydu bi jëmmal faydu bi nag na xam ne mooy xam yàlla jafe woon na bi faydu ñëwee xam yàlla dafa yomb dégg nga jigéen ñi ko xamoon ba fay bi ñëwagut soo duutee baaraam bala ngaa duutaat baaraam da nga wàññi junne door a duut beneen jigéen kon nag ci liñ xam benn jigéen rek ci histoire yi lañ gis ku ko yàlla mayoon ci dund ak sidina cheikh radiallahu anhu muy lalla ma naat yàlla mayoon na ko moom feesoon na fees ba kas foom mujj yi lu yàlla di wàccee rek mu ngi ciy teg bëtam te jigéen la woon dégg léegoo léeg mu andil sidina cheikh ay xibaar yoo xam ne nam ko waxee sidina cheikh noonu la ci sidina cheikh di tegee bëtam loolu nag ba léegi may googu ba léegi tëjuwut waaye fi muy sotteeku moo am problème te mooy ci xol yi góor góor lu defaraat xol yi bu baax bëggante ngir jëmm yàlla àndoo ngir jëmm yàlla suñ ko defee lépp rafet mbokk taalibe yi benn taalibe bu ko bu boo xam ne ak taalibeem wóoragut ko bëgg-bëggam rek la am mooy wax ak yéen tey na leen wóor ne suñ bëggee rafetal suñ diggante ak suñ sëriñ nañ rafetal suñ diggante ñu nu neen suñ bëggee dëggal suñ àndoo ak suñ sëriñ Mouhamadou Lamine nañu jéem a dëggal suñu àndoo ñun taalibe yi lii mooy dëgg suñ bu ko bëggee defal defal jëfal ba sedd xolam nañ jëflante ci suñu biir jëflante bu rafet dégg nga beddeeku bi amul njariñ beddeeku bi duwul taar beddeeku bi duwul doole àndoo leen andi xalaat yi daayira nasru wal fath farho ansaaru diin at bi ñu alaaji abdullahi radiallahu anhu di jox tur bi dañoo ànd man ak ñama àndat ñu fekk ko Sacré-Cœur ñu waxtaan ak moom na ko dañuy dund ci fédération loo xam ne mënuñ ci dara lott nañ ci pour soppi ko te neexut ñu ñu bëgg a nekk daayira boo xam ne sa daayira rekk la ñuy doon yow rek lañuy amat affaire di jóg di la siyaare si lépp loo ñu sant ñi def loo ñu tere ñu ba bañ ko dégloo ba pare ñu ne ko waaye nag ansaaru diin moom pare pour dem fédéré ci bi ma waxee loolu man lañ dénkoon kàddu yi bi ma ko waxee ma mu daal di jóg toog radiyallahu anhu ne xam nga li ma leen di digal na mu ne ansaaru diin yéen ñépp dem leen ngeen fédéré ci ansaaru diin bàyyi moo ko nose man alaaji Abdoulaye lépp lu bàyyi nose dama koy dëgëral mais duma ko yàq duma ànd ak ku koy yàq lépp lu ñu wax ne lii la ansaaru diin santaane dem leen ngeen def ko mbaa ngeen def ca la ngeen man su ngeen yëkkatee kàddu danañ leen déglu bu ngeen joxee xalaat danañ jël xalaat booba waaye bu ngeen beddeekoo ne du ngeen dem ndax lu leen naqadi dem leen ngeen def la leen war ci ansaaru diin ansaaru diin danañ leen déglu su ngeen amatee kàddu gi ngeen war a wax danañ leen may ngeen wax ko te danañ jël seeni xalaat jëfandikoo ko ma ne ko def nañ loolu ñas mu ne su ngeen ko defee alhamdulilah kontaan naa ci yéen ñu ne ko liñ lay dëggalee loolu booba ñu ngi doon ci préparation jamono booba waajal gàmm ñu ne ko suñ fi jógee léegi bu soobee yàlla ña nga jëm kar bàyyi du ñàkk dana am ñuñ fa fekk bu ñuy egg jox leen suñ cotisation bu gàmm booba ñu ngi cotiser cinquante mille bañ yeggee noonu lañ def wax leen lañ jëlee ci ala ci alaaji Abdoulaye alaaji aada kundu la ngi toog mag ñu magi njolofeen yooyu ñëpp ñoom président moon ñang booba ñëpp ñu ngi toog bañ paree bañ ko waxee ndeysaan moon ñang moo jóg jox ma loxo ne alaaji Abdoulaye moo normal waaye yéen it yéen a normal ellante woo nag ñëpp di def ni yéen fii dara dootu leen fi naqadi keroog la a jeex kon ñun loolu waxtaan ak kañ war a waxtaanat moo ñu may lool bañ bëggee dévier mu tegaat ñu ci yoon ñu dem fekki mbooloo ma dégg bañ demee ba daaira booba ñu tuddee woon nasri wal yàlla dogal daaira booba ña ko ngemboon ñii génn nañu àddina ñii retraite nañu ñii dem nañ ci yeneen i dëkk daayira ba daal dina sax ma garde tur wi biñ sampaatee nag mbooloo mii tey baaba boole ma ak ñoom mi daarul quraan ak ñi dëkkee liberté dégg nga yëpp te cheikh njëkk a jiite daaira boobu cheikh job keroog bañ defee waxtaan wañ def ca buntu kër maamam bañ pare laa joxe tur woowu ñu tuddee ko daaira boobu muy daairatu nasri wal fathi farhu ansar din ca la daaira boobu jëlaatee tur woowu ma jox leen ko kon noonu la tur woowu ñëwee ci suñ loxo ci suñu ndigal dégg nga boole kook lam ñu xamaloon na nañ koy jàng buñ def dajee mukk lu dul jàng nañ dog boobu ma jox ko mbooloo mi kon yii yëpp waxtaan mooy li nga xam ne moo koy indi waaye ñaar beddeeku taxaw fale kenn beru fale di xëcc na ñëwal nii la ndàngam yooyu yëpp dafay yàq ñun xëccoowuñ dara te bëgguñ lu dul yàlla ak li suñ sëriñ bëgg rek ndax xam liñ xam mooy yàlla rek la bëgg te buñ benn waxee nekk benn na leen wóor wóor yàlla ne danañ ko dimbale ci kàndoo gi mu ànd ak ñun danañ rafetal kàndoo gi te it danañ dimbale it ak njabootam parce que buñ bed jéemee beddeeku rek même buñ ko mënut danañ jéem a tasaare njaboot gi même buñ ko mënut danañ jéem a tasaare njaboot gi ndax ku beddeeku da am koo lonk ànd ak moom kon na loolu muy jëriñ affaire bi du loolu du noonu kànd gi genn la nañ ànd ak kenn ki mooy Mawlana Cheikh Mouhamadou Lamine jël njaboot gi yépp téyal ko njaboot gi lii mooy li nga xam ne mooy dëgg te mooy lii rafetal liggéey bi mbokki jullit yi lii laa doon tëjee waxtaan wi di leen ñaanal yàlla yal nañu yàlla boole defal jàmm yal na yàlla delloo siwaat jataay bi at yu bëree bëree bëree bëri bëri te yal nañu ko yàlla gërëmal ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp di ndokkeel mbokki taalibe yéeg am di jàmm yéeg ñépp mbooleem soppe yi cofeel gu ngeen am ci ñun rek am nañ ci yéen cofeel gu ko ëpp foofu di gërëm suñu mbokk Mouhamadou suñu doom dégg nga suñu soppee bés bii moo ko tax a jógee ba Gàmbi daw ñëw waxtu ma ne dem naa Gàmbi rek moom laa dem moo ma tax dem Gàmbi amut lu ko bés bi jaralut soo ko fekkee fii ngeen yaakaar ne moo jiite daayira bi wala ci membre yi gën a sax la bokk Gàmbi nag waxi noppi daayira bi nga xam ne moom la samp foofa yëkkati ko teg ko ci ay loxo yoo xam ne rafetlu na loxo yooya ñiy jàppalante ak moom jàppalante gu rafet yal na yàlla fay ko dëgëral taxawaayam defal ko ñëpp kuñ tudd kuñ tudd ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant di leen wax ne in uridu illa al islaaha wa ma illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib jubluwuñ woon lu may rek yéwénal jubluwuñ lu naqadi kenn jubluwuñ lu metti kenn waaye dëgg dafa diis ba nga xam ne boo ko yëkkati yëg nim diisee boo koy teg di yëg fi nga koy teg ni mu diisee waaye fekk nag dëgg rek mooy doxal yëf leneen du doxal yëf yi yëf yi du jayante suñ jayantee duñ dem du raayante du ragalante gannaaw lii doxal yëf yi loolu rek lañuy soxla taalibe bu nekk nag yaa mën a gëm sag taalibe mais yaa ko mën a weddi te amut ci kenn kuy weddi ak taalibeem taalibe bu nekk yaakaar na ne yaa gën a doon taalibe sa morom waaye yëf yi du wax yëf yi du wut wax yëf yi du wut ay politique du ay conneries ci suuf yoo xam ne dañuy yaakaar ne kenn yëgu ko kenn xamu ko xam naa lépp xam naa lépp mais yëf yi lim da moo di nañ leen tegu rek ci yoon wi tegu ci yoon wi mooy yëf yi ku wàcc ci yoon wi dëgg jam la te bëgguñ dëgg jam kenn kon nañ leen góor góorlu rek àndoo àndoo gu rafet jëflante jëflante bu rafet kenn ku ci nekk li nga bëggal sa morom nga bëggal ko sa bopp li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa morom lii mooy yëf yi yal nañu yàlla boole dimbale yaa bi yal na yàlla joxe man-man dëgg gii daal feeg ñu ngi ciy ànd nangeen xam ne importance su tasawuf mooy lii dégg li fayda ëmboo nit mooy lii su boobaa ku mel nii xamal ne ñi tax fayda ñëw bokk nga ci ñooñu su boobaa mën nañoo wax ne kon ñooy ñii soo gisee Baye am na ci leetaram yi muy wax ay muqaddam su dufu na di yéen yéen a leetar bi ngeen di bind su ngeen ko bokkut bind yéen juróom ñii wax ci wax yu garaaw soxlahuma leetar boo xam ne lu dut yéen juróom ñii diw diw diw diw yéen a bokk ànd toog bind leetar bii sama xol door a sedd su ngeen defut lii am na ñum wax ne su ma deexee sax danaa leen laaj sama diya ëllëg alaxira diya mooy alamaan bi nga xam ne boo reyee nit danga nga ko war a fay dégg nga am na taaliba yoo xam ne loolu la leen wax kon ngeen xam ne ki wax lii kooku raayu taalibeem jayut ko ci dëgg rek la ànd ak moom te ñun ñëpp kuñ ci wax nga ne iskay jërëjëfe bàyyi jërëjëfe bàyyi léegi romb na làmmiñ jërëjëfe bàyyi mooy nañ jéem a mel ni bàyyi meloon même bu ñu tëyee nañ ci jéem suñ kamtulaayu kattan dégg nga bëgg lim bëggoon doon def lim doon def ànd ak ñim mu àndatoon magi faydu bi ñuy soxla pour xam leen ñoom ñëpp a wàccee woon seen bopp ci kanam Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu dégg tey ñun ku ci nangu ku ci joxut loxo sëriñ bi wala ngay ngay buuxante ba di ko gaañ sax yaakaar na duwuloo tàll bi affaire bi du loolu loolu ñàkk teggi yéen la bés ni tey dañ xam ne buuxante bi ñuy faral di def ci kawam même bu ko neexee sax waaw baaba moom yooyu daf ko neex sax du ko naqadi benn yoon su demoon bëgg na tële sax ngay rëj rëjloo jëm si ci kawam ma ngay fexe num yootoo yëkkatee loxoom jox la ko ñun ñëpp gis nañ loolu waaye ñun ñag ñoo war a am yar ak teggin nañ ko wan yar bi nga xam ne moom lañuy ñuy nàmp nañ ko wan yar bi dégg nga liñ foog na mooy yëf yi du ko yaradiku la ngeen baal ma jubluwuma ci suufeel kenn waaye dëgg gi rek lañuy wax tey nañ leen jéem a ànd ak yar bu rafet loolu kat mooy yëf yi jëflante bu sel danga gis ku koy nuyu sukk ca gannaaw di ko yóotoog benn loxo loolu man dama ko ñeme su ma ko mënta jox sama ñaari loxo yi ba ko su ma ko naree jox benn loxo rek ma bàyyi joxe loxo ba dégg affaire bi du loolu nañ leen am yar bu rafet jikko woo jikko win wu rafet àndoo bëggante nekk benn say nañ leen lépp luñ bëgg nañ ko waxtaane ci suñu biir am solution lii laa amoon ci kàddu yoo xam ne danaa def occasion lancé ko fii ku ko fekkee dégg ko ku ko fekkee wut jox ko sa morom lii la parce que dégg rekk nag mooy dëgg dégg nga ñun niñ àndooxee ak Cheikh Mouhamadou Lamine moo di confiance bi mu am ci ñun danañ ci doxal suñ kemtulaayi kàttan lépp lu ñu ci te nag ñu door a dem yéen nekk ko ci kanamam yàllaa ngi may sutura bañ àndee ba léegi amut dara lu ñu të ci mbir mi bañ dem di ko sippi ci kanamam waaw ñoo ngi sant yàlla ci loolu te terewut gis nañ lu ñu enneeku ci kanamam nag ba tey gis nañ ko waaye ñun ñooy jaami yàlla yoo xam ne bëgguñ lu metti suñu sëriñ bëgguñ lu ko diisal bëgg te fekk ñun ñoo ko ko teg xanaa leneen lum yenu koy ñu jéem a seet nuñ koy participer ba yenu lekk ko ndax mu xam ne am na doom doomi maanaa loolu moo war a nekk suñ tiitar taalibe bu nekk sa sëriñay sa baay sa baayu maanaa doom nag lim war a def kër baayam la war a am kër baayam bu ko fa defut dafi ko kër bàyyi jàmbur rek kon lépp luy teraanga lépp lu rafet lépp lu baax nañ ko def jëmee ko suñ kër sëriñ parce que mooy suñ bàyyu maanaa moom lañ àndat ci yàlla moom lañ àndat ci yàlla kon nañ jëflante ak moom ci yàlla suñ lépp mën a dëggu ne yàllaay kese la lii daal mbokk yi mooy dundab mutasawif suufi yu dund gii lay dund àndoo gii it ci lay àndoo ak sëriñam waaye bum la reexal bum la xëcc ci taf la ci boppam ba tax nga tëdd ci kawam soo ko defee rek naagu ñëw te booy naagu rek musiba am dégg su ngeen di seetlu dangeen di seetlu léegoo léeg bu mënta ñàkk suñ toogee ci barab bu wasifa bi xadara bi damay daw mu ñot dafay mujj ñot di ma ñoddi yu metti su ma ko uysee def li mu wax su paree ba sikkat si dingoor rek maa ngay yor tey tey def nii di sori maa ko xam looy daw ci jaan ju mag dee ko daw ci jaan ju ndaw te kat ni ngeen di àndee sëriñ bi it dee leen ko àndee ak doom yi parce que sëriñ amul pegg parce que li tax nga def ko sëriñ amul pegg mooy yàlla kon kàndoor gi it bu ko utal pegg waaye lii ci la bokk lii bokk ci bu ñu amee ñun pas-pas boobu kon lii laa man walla moom la temps bi maye ci ñi laaxante ko biir ak yéen gannaaw buñ waxee liñ wax pour ñëpp pour ñu gën a góorlu gën a orienté doxin wi teg ko ci yoon wa gën a baax yoon wi gën a sell wi gën a ànd ak yar ak teggiin yàlla nañu yàlla nangul ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp góor ñi ak jigéen ñi ñëpp ñu ngi leen di gërëm ci seen taxawaay yi ci àndoo gi ci jàppante bi ñu ngi leen di gërëm bu baax yal na yàlla fayante ak yéen yal na yàlla gërëmal leen seen jëf ah, kooku moo colonel Thiam kooku mooy colonelu Maulana Cheikh Ibrahim bi nekk ci campu Cheikh Mouhamadou Lamine waaw yal na yàlla fayanteeg yéen taxawaay bi rafet na yal na yàlla fayanteeg yéen yal na yàlla defal leen lépp lu ngeen bëgg ci lim bëgg ak lim gërëm lépp li ngeen ci bëgg yal na leen ko yàlla defal yaa bi yal na leen ko yàlla defal yaa rabbi biti dama xam ne maa yéen yéen ay man su leen ko defalee maa ngi ca biir kon yal na leen ko yàlla defal yéen ñëpp jigéen ñi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na leen yàlla may tawféex dafa leen jàmm njaboot gu barke jàmm jigéen moom yàlla déggale ko boroom këram ak njaboot gu barke foofu la jàmmi jigéen gën a aju yal na leen ko yàlla defal yaara bi déggale leen ak seeni borom kër ca la yàlla bëgg ak lam gërëm yàlla may leen njaboot gu barke gu àddina yëpp xam ne njaboot gi barke na te ngeen fekkee lépp yomb na yàlla yal na leen ko yàlla defal yaara bi ñu ngi fayanteeg yéen ñëpp Adja ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ci ñi teew ak ñi teewul ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax ñi nga xam ne ñoom lañu tuddee it ñu ngi leen di gërëm bu baax ak waa kër Cheikh ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñoom ña jiitu yàlla nañ nekk ci yërmande yàlla ji yokk di dolleeku ci ñoom daa iman yàlla nañ dëkk ak seen sëriñ Maulana Cheikh Ibrahim Maulana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ca gën jàkkowe elli na yéen ñiy njaboot gi di famille yàlla na yàlla may leen fan yu gudd yu ànd ak wér ngeen yàgg fi lool di leen ñaanal yàlla yal na yàlla nangu lépp dëgg-dëgg euh, kontaan naa ci tur wuñ ko mës tuddee waaye dëgg-dëgg ñaar ñii ñu tuddee ren toll na ci man noo xam ne làmmiñ lottu na ci wax ko ngir xam dimension bi nga xam ne moom lañ doon moom lañ doon peese yal na yàlla dafa leen jàmm yaara bi ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm Cerno Seydou moom it ma nga jóge ba Kaolack bés bi rek moo ko indi tabaarakallah moom it saa yu ñu ne dem nañ Fuuta rek ci bésam lañ dem ca nawre tabaarakallahu di borom xam-xam bu oyof jëmm joo xam ne ku yàgg foofa rek da xam ne kilifa la macha allah yal na yàlla fayal ñu ko ak ci kamam ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp kuñ mënta tudd turam kii nag suñ magi bopp la sëñ Lamine Diop moom macha allah moom ba daayira bi di door a juddu ca kër ga xar yàlla moom lañ tuddee woon sama soxnaa ko tuddee woon jéeb deux heures deux heures pile egsi na ku ñëw gannaaw deux rek mu al mu dóor la alamaan <laughs> dem na ba fi mu nekk mag la waaye tey jii fa tabaarakallaahu la gën a bëri dangar yaakaar naa ansaaru diin xam nañ ko bu baax alaaji maalaw kamara ñu ngi leen di gërëm colonel salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Seydi Mouhamadou Mourtada mu ngi nii firi alquran mi ñu daan def te yàlla dogal oustaz Thiam génn àdduna moom laa ko jox ren moo ko amee yàlla na ko yàlla dimbale mu def ko at yu bëree bëree bëree bëri macha allah imaam Cherif bi tey ma nga ne ñoom ñàpp da nga nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla ñoom it di jàngalekati alquran lu nekk ci alquran ci njaboot gi rek macha allah ñoo ko ci def ñu ngi leen di. rahmatullahi wa barakaatu. di sama doomu mag. ñu ngi koy gërëm bu baax taxaw na taxawaay bu rafet wuuti ci magam Mahamadou Lamine bi tey mi nga xam ne li ci bari moo ko daan taxawee yàlla dogal ma nga ba marok diggante daaw ak yëpp mu téye affaire yi modérateur bi di ko def defin woo xam ne wu rafet la wu sell la daa fekk li la jege li lay fatt day jege toujours teyit li la li bokk ci yow nga bokk ci moom heure boo waxee rek da ngay yëg ne sax far mooy kiy wax waaye maa ngi leen di beral cant di leen bégee bu baax ci taxawaay yoo xam ne yu rafet la di ko jàppalante ak mbooloo mi rawatina di ko jàppalante ak man maa ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla yal na yàlla dëgëral taxawaay bi yaara bi Mouhamadou Lamine it fam nekk la muy sàkku na ko ko yàlla yombalal moom ak ay kemam bañ dellu siwaat ci jàmm fekk fi jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim